حبيبي ربي في الوفاء المنتمي لسورفا فيا له من طاهري تمني وما المصطفى واو واو حبيبي ربي في الوفاء واو المنتمي شرفاء فيا له من تاهي محمد دعني وما المصطفى حبيبي ربي الوفاء المنتمي لسورفا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 quatre vingt ci Dakar Thiaroye Azur cent trois point six ci Tivaouane albayaan ci internet ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo jiite xadara bi di xadaratu almalikiya te ki nekk ci bopp bi di asseyid cheikh tijaani alxalifa di ñaan yàlla yokk ko wér yokk ko kàttan woyafal ko yen wi di nuyu rakkam ju tedd ji muy sëriñ abdul aziz si al moom it di ko ñaanal wér ak wérle yàlla gën ko woyofalal charge bi nga xam ni moom la ko chargé ci xadratu malikiya ak seeni rakk sëñ Babacar Si Mansour ak Seydi Xaaji Malik Dabaax waaye nuyu kilifa rajo bi di Xaaj Mansour Sow ak ñi nga xam ni ñoom la àndal ci administration bi yépp nuyu it ñi séq desk bi muy cheikh xalif njaay bi jëm imaam babacar sëy ak ibrahim diouf di nuyu pape maxtar silla ak mboolem auditeurs yi nga xam ni ak auditrices yi nga xam ne ñu ngiy déglu ci quatre point cinq fii ci dakaar Caaroy Azur waaye cent trois point six ca Tiwaawoon mu mel ni seen émission bii di l'islam pluralité et dialogue nga xam ni mooy am altine ba aljuma bés bu set ci 9h ba 11 ak benn présentateur boo xam ni dina ñëw présenter leen benn thème mu nekk loo xam ne débat lay doon nun ñu koy ànd ak yéen àllarba ju ne ci waxtu wi 9h ba 11h suñu waxee loolu nag ne lislaam diine la ju nangu dialogue loolu da am ay aaya yu bari yoo xam ne da koy firndeel su ko defee loolu dinañ ci ànd ci kanam ak suñuy invité yi nga xam ni ñoom lañu ñu invité tey ci première émission bi waaye dinañ ci ànd tamit ak universitaires yi pour xam ci seen njàngat ànd ceeg waa daara ji ñoom it ci wàllu buum gi mu war ko ànd ak soxna Aysa Sàll nekkoon euh, rajo Dunia fii ci dakaar ñu war a séq tey liggéey bi nga xam ni mooy programme bi albayaan di ànd ak ñun di ko def bés bu set altine ba aljuma ci waxtu wi lislaam nag su ne diine dialogue la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax ne ko seen naataango yi ñii nga xam ne ñoom nga seqal mbir mi ñii ahlul kitaab te mooy juif ak chrétien woo leen ci benn kalima boo xam ni yéen yéen ko bokk kalima bi yéen ci yem jëmm jooju yéen a ci yem ngeen waxtaane ko réew li koy développé mooy la ñëpp bokk ñu toog waxtaane ko yaa ahlal kitaabi tacaalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynana wa baynakum te mooy an laa nacbuda ila allah waaye it wax na ko ne ko it discussion mënul ñàkk waaye su amee yow Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ak sa njaboot na ngeen ko def ci anam bu mu gën a rafete waxuma anam bu rafet na ngeen ko def ci anam bi gën a rafet mu ne walaa tujaadilu ahlal kitaabi illaa billati hiya ahsanu da ngay discuter juif yeeg nasaraan yi ci anam bi nga xam ni mooy anam bi gën a rafet ci discussion yi waaye ñi discussion boo gis walla mbooloo moo gis du ñàkk ña ca rax te xamuñu dara rax mbooloo ma yàq ko ila allazina zalamu minhum su boobaa wa quulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilaahuna wa ilaahukum waaxidun wa naxnu muslimuun su boobaa tooñkat ya ca ñoom nee leen nun dey risaale bi nga xam ne moom lañ ñu indi dey gëm nañu ko risaale yi wàccoon it avant suñu risaala gëm nañu ko te it xam nañu ne buur bi nga xam ne mooy suñu borom mooy seen borom yéen te ñun ci moom rek lañuy jébbalu yonent bi bokk na it ba tey ci ay mbiram ashura muy consultation yàlla jël ko def ci saar mu ne ko nag say ñooñ ñi nga xam ne ñoo la di taxawal julli juróom nañuy consulter consulter wu ci seeni mbiri bopp wa amruhum suura baynahum waaye nag wa mimma razaqnaahum yunfiqun digal leen ñuy consulter wu ci seeni mbiri bopp waaye seen alal it ñu ciy dépenser waaye yow sang bi nga xam ne yaa leen yilif wa saawirhum fil amr del cons dee leen consulter ci say mbir ci li ngay def ak lépp diine la it joo xam ne moom lislaam du diine force ci nit pour mu bokk ci par force déedéet la ikraha fi diini qad tabayyana rusdu min al ghayyi nulle contrainte en religion car le bon semé s'est distingué de l'égarement njub gi gannaaw leer na dëgg ngi nii di dëgg kàcc nga ne la di kàcc ñi bokk gut ci njub gi bu leen forcer pour ñu bokk si njub gi bàyyi leen ñu dem ak seen principe waaye yéen it am leen fayda ba bu ñu leen génnee ci njub gi ngeen nekk moo tax Maodo firi ko ci benn bayitam moom aaya boobu di laa ikraha fi diin Maodo firi na ko wasiilatuna nafa fi diini diinan tabayyana naa fi kulli diini nee na wasilatuna ki nga xam ne moo nuy jàlle te mooy sayduna muhammad sallallahu alayhi wasalam sallam nafa interdina fi diini ci diina ji di lislaam diinan forcé mu forcé pour dugal ko ci diine daal interdire na ko nafa interdina fi diini ci diine ji diinan forcé ñu ko Maodo lu tax mu ne te bayyana leer gi mu leer rus dunaa sunum njub fi kulli diinin ci bépp mbir xam nga Maodo ku yéeme woon la moom diini diini diini te benn ak sa bokk seeg sa morom li muy tekki kon lislaam pluralité et dialogue dafay nekk waaye ñun thème biñ ci jël tey rek fas yéene ko ànd ak invité yi mooy assababu masuliyatul bina ndaw ñi ñoom lañu dénk tabax ndaw loolu war a tabax nag nan la war a mel dinañ ci ñëw ak suñu invité yi bokk seq ak ñun plateau bi ak suñu invité yi nga xam ne ñu ngi xaar ci buum gi dafay doy sëkk rek la Maodo waxoon ni irtixaalu Moustapha ilal Madina bi muy laxas jógee Màkka di jëm Madina ñeenti ndaw ñoo ko assumé woon ñeent ñetti ñi góor lañu ñaar ñi euh, ñett ñi góor lañu kenn ki jigéen la dafa wax ni moom Maodo yenent bi bi mu préparé hijira bi pour dem Madina ki amee woon communication am Abdoulaye la doomi abu Aboubacar moo daan jëli ji information yi di indil yenent bi sallallahu alayhi di déparé fii yenent bi nekk ak abu Aboubacar di dem makk di vérifier ki amee woon sécurité am mooy Amir ndax waxtu wi Abdoulaye di ñëw mooy sàmm gàtt yi pour ñu effacer trace bépp boo xam ne mën nañ ci topp ba jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amir bu dee ibnu urayqiti kooku moo nga won moo doon moo amee woon protocole bi wan yonent bi fi mu war a teg tànkam ba àgg Medina te gaa yi duñ ko dab ndax yonent bi xëy na boobu miinutoon Medina il faut que mu am koo xam ne moo ko gënoon a miin mu koy giide moo tax ibnu urayqa mawdo ne yabiitu abdu indahuma kon abdul ilahi wa yara amirun lahuma qul minhatul ganami waaye nag wabnu urayqiti abdullahi dalla ala xayril imaami imaaman xiiratal umami kon urayqa mi ak abdullah ñoo doon wan yonent bi salaay yoon wi nga xam ni fi la war a aw kenn kon indi naa la ñetti ndaw mu des kenn ki di jigéen moom Maodo tuddee woon ko zaata nitaa xayn borom ñaari takkaay yi maw mawha zaata nitaa xayni ñu ne kooku lan moo nekkoon mission moom ndaw su jigéen soosu di asma mu ne taati taama lahum fi lxaari bintu abi bakrin wa qad taabat fi amri zedihim moom ndaw si repas bi baayam ak yenent bi sallallahu alayhi wa doon lekk moo ko doon préparé di leen ko indil secrètement waaye it boo xoolee ci irtiha ci hijre bi yonent bi soxla won na ci alal ju mu demee dëgg la Abdoulaye moo ko yenn Maodo confirmé na loolu waaye pexe bi bi ñu jotee xaalis bi nee ki ko doxoon jigéen la muy asma wal maalu lil gaari Abdullahi xaamiluhu alal ji ñu duñ doon utiliser ci gaar bi nee na turandoo Abdoulaye maar nii moo ko doon indi ci baayam Aboubacar ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye nag asmaa'u mi ne xul waxal asmaa asmaa nag xarrat nax na jaddahaa maamam minal irami ci mbuusu xeer xam nga jamono yooyu sàlleen yéeg mbayeen yi ca lañu daan denc mooy zaari mbuus yi ca lañ daan denc seen xaalis mu jël nag mbuus ma nga xam ne fa la xaalis bi nekkoon jël xeer yi sotti ca mbuus ma teg jël jël xaalis bi acc daw noonu la naxee maama mu làmb ndeke ay xeer rek a nekk ci mbuus mi kon dafay doy rek teetal ci ni ndaw yàgg na wane ni moo war a tabax am réew kon li ñuy def rek mooy ñëw ci plateau bi présent bàyyi euh, suñu mbokk yi nga xam ne ñoom lañu war a dalal ñu présenté wu kenn ku si nekk tuuram ak santam waaye balaa dara ma jox ki nga xam ne moom laa war a àndal ci émission bi muy soxna Aïssa Sall mu nuyoo moom it présenté wu ñu soog di nag dem ci question yi soxna ay Aïssa bismillah tabaarakallaahu euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp ku ci nekk ku toog ci sa kër moo xam ku ne ci sa oto di dem dégloo ci rajo bi wala ngay dégloo ci internet bi maa ngi lay nuyu di la ziar rawatina ñi nga xam ne ñoom laa fekk fii ci kër gi eh, ci Albayaan 90 eh, point 5 fii ci Caaroy Azur moo xam borom kër gi la moo xam yi tamit ay njabootam maa ngi leen di nuyu di leen ziar di bëgg ci sama teewaay fii eh, di la nuyu yooyu tamit Daouda Eh, di la sargal waaye tamit eh, di la jaajëfal ci confiance bi nga xam ne am nga ko si ñun eh, tabaarakallaahu samay nuyoo ma koy gën a tegaat ci ñi nga xam ne yëpp nuyu nga leen moo xam ki nga xam ne moo jiite tarixa Tidiane fii ci Sénégal di suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane si almakhtum ak njaboot gi nga xam ne ñoom la yilif yëpp. Euh, rawatina ki nga xam ne mooy suñu wasila muy euh, Seyd Mouhamadul Moustapha Sy ku ñaanal yàlla yàggal taxawaayam lool euh, te yeggal yéeneem ci njaboot gi waaye itam di tamit sëñ Maxtaar sëñ di ko ziar xam naa tey fi mu ne nii mu ngi ñàngal di jaay ay <laughs> affaire sëriñ waaye dama koy wax rek mënuma intimider waaw tey moom de saf saf waaw tabaarakallaahu moom tamit di ko euh, sargal bu baax a baax a baax ak ñi nga xam ne ñoom la bàyyi ci këram yëpp euh, tabaarakallaahu waaye duma fàtte tam sa technicien bi waaw Abdoulahi euh, waaw moom tamit maa ngi koy ziar moom sama sama turandoo doom la waaw ah, tabaarakallaahu daaw la waaw waaw <laughs> allah uh-huh. yal na ko yàlla gën a wéeral jàppale ko bu baax liggéeyam. Euh, jërëjëf euh, soxna Aïssa su ko defee rek dañuy bàyyi suñu invité yi ñoom it ñu présenté wu euh, sëñ bi ñu ngi lay bàyyi rek nga présenté wu fii ci 90 point 5 Dakar Thiaroye Azur 103 point 6 ci Tivaouane waaye albayan sénégal point com ci internet bi aoudu billahi alalim min alcheytaan arrajim laa hawla wala quwata illa billahi alaliy alazim alhamdulilahi qabla kulli ahadin walhamdulillahi baada kulli ahadin walhamdulillahi ala kulli haalin allahuma salli ala sayidina muhammadin wa man walaahu adada ma taalamahu min bidai lamri ila muntahaahu wa ala alihi wa sahbihi bukratan wa asila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu noo ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ni yëpp nooy déglu rajo Al Bayaan di nuyu ki jiite kër gi ki jiite programme bi di nuyu animateur yi ci rajo bi yëpp techniciens yi ci rajo bi yëpp ak personnel bi nga xam ne nii yëpp ñoo nekk ci Al Bayaan FM ñoo ngi leen di nuyu di yëkkati nuyoo boobu nag di ko teg ci sunu mbokk di oustaz Daouda kamara mi nga xam ne nii tey moonu fi dalal di ko nuyu bu baax di ko jaajëfal di bëggee tamit ni mu ubbee mu am solo daanaka tënk yu baree bari waaye tamit di nuyu sunu jigéen bi nga xam ni moom it euh, ñëw nañ fekk ko ci jotaay bi ñu miin a seq jotaay fële ca rajo Dunia muy soxna Aïcha nu koy béggee di ko nuyu bu baax di ko ziyaara di nuyu tamit oustaz Kayre defe naa bu ma fàttewul kanamam mm, gëj nañoo gisee sama wëllëre la ñu daje woon fële ca programme Cheikh Ibrahima Sène ba ca pikin ñett mbaar maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu woy juróom wu ñaanal woy juróom wu baax wa yàlla doog dolli ko yërmande dolli koy leer defal ko bépp jullit bu jiitu di nuyu bu baax sunu mag Cheikh Mouhamadul Fatah di ko ziyaara di ko ñaanal jàmm di nuyu tamit sunu mag Serigne Fallou Cissé moom di ko ziyaara di ko ñaanal jàmm di nuyu tamit sunu wóllëre Souleymane Ndiaye bu yeen moom itamit mi ngi may woo ci yoon wi mu ngi bàyyi xel xam na jataay bi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara présenté wu nag ku ñuy wax Makhtar Sarr moo fi toog tey Oustaz Daouda Camara invité ko mu jugee Pikine jërëjëf kon dafa mel dañuy ànd ak Ablaye Mar rek ci élément bi le temps que sang bi di souffrir euh, ñu ànd ak ñoom ci premier élément bi ñëpp ñu ànd déglu ko kon Ablaye bismillah euh, maa ngi nuyu mbooloo mi ñi ñuy déglu ñëpp di leen wax euh, asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa euh, di sant yàlla nag dellu kontaan ci yëg bi ma yëg ba ñëw di ma interviewé euh, pour ma bokk ci émission bi joxe ci sama xalaat waaw man li may wax ci thème bi d'abord bala maa wax ci thème bi sax damay sant ñi nga xamante ne ñoo initier mettre mise en place su rajo bi bi nga xamante ne nit ñi dinañ ci jariñu jàng ci parce que émission yi ngeen fay def yëpp ci wàllu njàngale rek la dama koy déglu toujours waaw lu ma ci rata rek c'est parce que xañ na temps bi moom ma ko mayul waaye bu ma sañoon lu fa xew suba ba ngoon jot ma déglu ko ndax jàngale da ngeen ñuy jàngal suñu wàllu diine nan lañu war a taxawoo ci suñu diine loolu doy na jàng parce que ndaw su nekkee ci àddina nekk doomu jullit bëgg jaamu yàlla il faut mu xam naka lay jaamoo yàlla euh, pour thème bi moom li ma ciy wax bariwul parce que dama yaakaar ne boo nekkee ndaw nekk ci àddina yàlla wàcc la euh, am nga loo xamante ne ni benn mission boo war a dox ci àddina war nga ko jaamu war nga liggéey loolu lépp ndaw da ko war a def ci bi nga xamante ne nii nekk na ci temps ndaw parce que boo deful loolu lépp bàyyi ba nga nekk mag amaana kàttan nga dina la raw boo nekkee ndaw jublu ci sa wàllu liggéey sa wàllu jàng diine jaamu yàlla parce que loolu lépp ndaw ak kàttanam moo koy may ñun ndaw yi nag damay wax ne ñun ñooy modèle ñooy model parce que bu ëllëgee ñun ñooy doon ay mag donc am na yenn comportement yi nga xam ne war nañ ko am adopté ko ba nga xamante ni bu ëllëgee bu ñu doon doonee mag comportement yooyu dina des ci ñun mais supposons ma jox la benn exemple ñu nekk ndaw di def lu defuwul buñ ko tàmmee mu nekk suñuy habitude bu ëllëgee bu ñu nekkee mag mu topp ñu soo rombee nit ñi ne aacim ah, kii comportement bi xool leen ko fekk ba nga nekkee ndaw nga ko cultiver ci sa bopp ba mu ànd ak yow ba nga nekk mag soo ko bëggee dindi da lay të loolu mënul nekk waaw ah, loolu daal xam naa ne moom euh, ndaw yi sama moroom yi ci àddina bi maa ngi leen di ñuy toog di waxtaan ak seen xel xam ne nit ba mu nekkee ndaw sa la mën a liggéey jaamu yàlla liggéey teral ay waajuram teral boppam bu ëllëgee mu mun si yor ay njabootam waaw waaye di dolli rekk gërëm ak sàkku ñaan si suñu kilifa diine yi nga xamante ne nii ñu ñuy jàngal di ñu dolli si suñu wàllu diine di ñu wax suñu maam yu baax yi fi nekkoon liñ fi def ci senegaal ba Sénégal yegg fii tey mu yegg si loolu sant yàlla la waaw sant yàlla la bu baax parce que damay déglu émission yi émission yi ay jaar-jaaru maam Alaaji Malick Sy émission yi ay jaar-jaaru doomu maam Alaaji Malick Sy émission yi ay jaar-jaaru surtout maam Alaaji Malick Sy ñi nga xamante ne ñooy suñuy référence tey man particulièrement nga xamante ne sama référence di sama sëriñ muy sëriñ Mbaye Sy Mansour maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaw bu loolu weesoo tamit maa ngi gërëm samay ñaari waajur ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ma indi si àddina yàlla jaarale leen jaarale ma ci ñoom ñu wàcc ma ci àddina teral ma yor ma niñ ma war a yore ba tey ma doon lii ma doon maa ngi leen di sant di leen gërëm yow mii daaw de maa ngi lay sant di la gërëm ak sa nattangoo yi nekk ca rajo ba di leen wax na leen liggéey bi ngeen liggéey rafet na lool. waaw kay su ko defee kooku mooy première élément bi soxna ay che maxtar yaakaar naa jël ngeen ci note su ko defee dañuy bàyyi rek oustaz nuyoo ñu delloo Maxtaar euh, kàddu gi ci thème bi nga xam ne tey moom lañ fa seenee waxtaanee te mooy ndaw mooy ki nga xam ne moo war a tabax am réew ndaw loolu lan la war a mel waaye balaa dara ñu dal oustaz daam nga nuyoo yow it présenté wu ñu soogee dem ci laaj yi.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 wa sallallahu wa sallama wa baaraka ala rasulin ismuhu ahmed nabiyun qadruhu amjad qalilun xulquhu asaat min alxallaahi burhaanu wa radiyallahu an ittaaji alcaarifin mumid kulli awliya arrahman abilcabaasi beyti alwilaayati misbaaxu dalaami wa miftaaxi alkunuusi wa xatmu lkullu lilxiini rabi israx li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu santee yàlla cant gu tolloog màggaayam cant gu tolloog kawe ci xeewalam yu rëy yi nga xam ne du deñ di ko sotti ci suñu kaw te xeewal yooyu buñ ko doon lim duñ fi jóg ndax wa in taudu nicmatallahi laa tuxsuuha fa tabaarakallaahu Ah, di jël nuyoo bi rekk di ko teg ci nuyoo suñu mbokk mu baax mii suñu soppe bii di Seyid Moxtaar Sarr fa tabaarakallaahu fi mu jaar foofa rekk lañuy jaar fa tabaarakallaahu te muy nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci rajo bi ak technicien yi ak personnel bi fi nekk yépp waaye nuyoo yooyu ñu jël ko teg ko ci suñu loxo soppe bi di oustaz Daouda Camara tabaarakallaahu di nit ku yàlla baaxal di ko ziyaara di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla yàlla ko yàlla dëgëral yàlla yàlla sàmm ko ba li mu yéene yépp yàlla defal ko lu kawe njortam di nuyu suñu jigéen bu baax bi soxna Aïcha fa tabaarakallaahu yaay la ci ñun soxna Aïcha Sàll fa tabaarakallaahu ñu ngi koy ziyaara bu baax di ko eh, ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na yàlla barkeel yépp zaahiran na baatinan mel na émission bi lépp luñ ci séentu ci defaru yàlla na yàlla defal ñu ci lu kawe suñu njort loolu yomb na yàlla yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def bi xormati nabi sallallahu alayhi ah ñu ngi nuyu nag kilifa yi nga xam ne ñoo ñu yabal ñu yegg si fii jiital ci suñu kilifa ga toog toogaayu alaaji Ousmane Kayre mooy Serigne Cheikh Omar Kayre tabaarakallahu ak ay rakkam di Serigne Babacar di Seydil Jamil di Baye di maam osmaan ak Moustapha Ngiraan tabaarakallaahu ak bokk yi nga xam ne ñoom la ñu am yépp ñu ngi leen di ziyaare seen kilifa ya ñu am ñoom di alxaaji Moodu Mbuub alxaaji Bilaal Ngiraan tabaarakallaahu alxaaji Góora Ngiraan alxaaji Ñoogu Mbuub ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di nuyu suñu responsable yi nga xam ne ñoom la ñu am ci biir coordination bu Dakar di ci jiital xaaji Masilla xaaji Njawar xaaji Pap Silla ak mbokk yi ñu ko seqanteel yépp fa ah, ñun nag ni xaaji Moxtaar wax rek lañ ñun ndonga lañ rek ju nekk ci daare ji tudd Ahmed Dame Kayre bu doomu Alaaji Ousmane Kayre ñu ngi leen di jéggalu bismillah ok jërëjëf eh, yaa Oustaz bu defee Oustaz Maxtaar dégg nga élément boobu ñu eh, dawal léegi mu nekk kenn ci xalaatu benn universitaire xam naa dinañ ko am sax ci ligne bi incha allah ci kanam mook Cheikh Tidiane Diouf bu Rufisque bokk ci commission COSCAS waaw donc euh, thème bi sababu masuliyatul binaa la yaa lan nga ci wax waaw jërëjëf euh, oustaz sababu masuliyatul binaa thème la bu rëy ndax balaa kenn dëkk tabax dëkk ba noppi door tabax day jur coono tabax nag buñ ko waxee duy taax bu dee dégg naa la muy ndaw lim war a tabax mais tabax bi dëgg pas-pas la buñ ne pas-pas jikko la ndaw yi soxlaawuñ leen tabax seen jëmm bàyyi seen pas-pas tabax seen jëmm bàyyi seen ruux tabax seen jëmm bàyyi seen jikko soxlaawuñ ko ndaw yi la baay ja waxoon doom ja bi mu ko yónnee mu yéex a ñëw fekk doom ji dafa xaw a am jëmm dafa jëmmi baay ji di ko xas naan ko aqluhu aqlu taa'ir wa huwa fi xilqatil jamal mu ne moo ne de jëmm ji comme jëmmu gélem waaye xel mi comme xelum picc mu wax ko doom ji doom ji moom it nekk ku nu yarul ne ko musabbihun bi ka yaa abi <laughs> walaysa lii fii ka man xal <laughs> mu ne ko bàyyi yow rek laa niru mosuma fee jóge <laughs> yaa ma yar ba ma toll nii kon nu ma mel rek ci yow xam nga nag fexe ba ndaw ñi entraîné ba am doole toll ne ñay tefes goo dem léegi ndaw ñaa ngi entraîné tefes goo dem ñi ngi yëkkati poids salle de musculation yi mi ngi fees dell ci dëkk bi foo romb saal tel saal tel tur wu ne danañ ko ko wutal ndaw ñaa ngi fay dugg di fay téeméer mille farans pour rek tabax seen jëmm ba seen jikko loolu nag du doxalum réew amul menn réew moo xam ne ni li ko développé mooy nit ña fa dëkki dañoo ngand mosula am réew moo xam ne li ko développé mooy ay ponk la fa dugg moo ñoo fa dëkk réew moom mosula développé ngir loolu mais boromi xel boroomi xalaat boroomi jikko boroomi pas-pas yu dëgër moo tabax lu mos a jag yàlla wax na ci alquran ne da yonent yàlla yaxya bi muy mat li mu doon boobu mi ngi nekk ndaw bi mu ne ko yaa yaxyaa xudil kitaaba bi quwa lu mu ca teg wa ataynaahul xukuma sabiya yow yaxya jëlal téere bi di tawraat bi ñu joxoon Muusa nga jël ko ak farlu moom Cheikhul Xaaj Malik wax na ca xantaratul murid ba ne quwa googu mooy farlu bi jiddi yàlla ne wa naaxu hmm. mat na li mu doon hmm. ñu def ko ko lan lañ ko jox alxukuma responsabilité mm-hmm. lan lañ ko jox alxukuma mm-hmm. way mm-hmm. lan lañ ko jox alxukuma ñor lan lañ ko jox alxukuma ràññi lan la am farlu ba am ko alxukuma mokkali téeréem kañ sabiyan bi muy nekk ndaw bi muy nekk ndaw maamar dafa wax ni yeneen yonent yàlla Yaxya ndaw ñi dañu mos ñëw ne ko kaanu kaayinu foy mm-hmm. am po du développé réew mm-hmm. am po du taxa du tabax réew mm-hmm. boo déggee ñu naan làmb ji facteur de développement la c'est foo làmb ji mënula nekk facteur de développement lu tax kenn du ci gañe lu dul mbër mii bëri kenn du ci gañe lu dul sëriñ ba koy ñaanal kenn du ci gañe lu dul yaayu mbër meeg baayam ko ci daane du wax samay fans laa bëgg a yóbbu Europe. ñu liggéey. lu muy wax maa ngi sant yàlla julli ci yenent bi sant samay ñaari wayjur sant sama sëriñ diw man sama yaay ma tax di bëri. sama yaay laa bëgg a teral waxul sama fans laa bëgg teral waxul sama réew laa bëgg tabax. kon du tax réew développé. mooy làmb. kon buñ tuddee làmb bépp xeetu po. dugg na mënula développer réew. mu ne maamar mu ne yaxyaa dañ ko wax ne kaay nu fay mu ne maali laay bi xuliqtu potaxul ñu bind ma mhm. nga dégg ci ne po ndaw lu jógee po mhm. du tabax réew mhm. beneen bi mooy ndaw damay wax ni mooy àll bi nga xam ni ëllëg ak mag dafa sedd ak ndaw dafa tàng ku bëgg nag jaaru ci seddaayu mag dangaa taxan ci tàngaayu ndaw bari na ndaw loo gis ñee ko bu nekkee mag boo ko gisee yërëm ko lu tax waaju lu loon tabax jikkoom pas-pasam ruuxam ba mu nekkee mag noppalu yaa ngi ci bal bi yow ndaw yaa ngi ci bal bi yow ndaw toppatoo lu dul bool bi yow ndaw toppatoo lu dul boon bi yow ndaw toppatoo lu bi yow ndaw toppatoo lu dul bal bi yow ndaw boo mattee boo màggee màtt sa loxo wi cax ba tax na masuliyatul bina ponk la bu am solo. Mhm. ci ndaw. baax na jërëjëf oustaz Aïcha dégg nga oustaz euh, li mu jot a développé yow donc lan nga ko ci laaj ci biir li nga xam ne jot na ko développé. Euh, tabarakallah ñu ngi jaajëfal oustaz Makhtar Sarr mhm. euh, def naa li mu li mu indi dafay rejoindre rek yow li nga njëkk li nga njëkk développé maanaa réew. Euh, li koy euh, téye wala boog liy basam mooy euh, communication mooy sécurité ci li ma jot jàpp mooy protocole xëj na wala peut-être orientation njàng ak ñoom seen ak économie te loolu yëpp moom ci ndaw ñi lañ ko gën a séenoo waaye ñu gis tamit ne fii exemple bi fi ñu fu la jege rek ngay gën a mën a jëlee exemple fii ci Sénégal mu mel ni ndaw ñi dañuy foo ba mu neex leen ñu toog ba mu ba xëj na jëm mag doon leen lu la man magum jëmm laa ma mosoon dégg euh, benn ustaas mi wax ne magum xel a gën magum jëm gis nañu itamit ne euh, mag ñi euh, ba léegi noppaloo kooguñu mag ñi ba léegi noppaloo kooguñu ñoom daanaka ñoo yore kii yi bàyyi ndaw ñi di fo kon xëj na responsabilité yi xëy na ndaw yi am ndaw ñi am nañ si responsabilité waaye mag ñi ñoo ci ëpp responsabilité hmm. ndax itam yow sax ci am na exemple boo joxee ci ndaw li nga xam ne euh, bi ko baay bi euh, xasee daf ko ni yow laa nuru ak garab loo ci gàj ji rek loolu nga fay loolu nga fay fekk kon léegi responsabilité yi xëj na situé naa fenn mag ñi ñoo ci ëpp responsabilité waaye kon fan lañu jëm nan lañu ñu nar a def waaw fu ñu war a jëm mooy waaj te waaj bi jiitu ci ndaw pour tabax ëllëg mooy xam-xam maam cheikhul xaaj malik bi muy def appelam bu rëy ba alaa yaa bani hada damaani daawtukum li ihyaai diini bil ulumi ajibu yéen ndaw tey man alaaji malik maa ngi leen di woo ci lan laa leen di woo ñu dundal diini mais ñu jaare ko ci xam-xam imaamu Ghazali dafa bind ixyaau ixyaau ulumi diin nañu dundal xam-xamu diine mën nañoo dundal xam-xamu diine ba noppi diine du dund alaaji Malik ne nañu dundal diine moom jaare ko ci xam-xam appel booboo gën a rëy bu Ghazali ba appel booboo gën a rëy bu Ghazali ba kon appel boobu xolal alaa yaa bani haada damaani appel boobu noonu le benn appel du ko gën a rëy yéen ndawu jamono ji man alaaji Maalik maa ngi leen di woo ci lan ñu dundal diine fu ñu koy jaaree bil ulumi ci xam-xam ndaw mënula tabax dara ta xamul mais xam nga lu yàqal ndaw ñi xam tey jiital kurus ak kaala ndaw bu jiitalee kurus ak kaala du tabax dara te du sama wax ah maam Cheikhul Xaaj Malik moo ko wax daf ne kun xaaifan imaamatul awraadi maal amaimi bila irshaadi kun na nga nekk yow sama mbokk mi xaaifan di aji ragal imaamatal awraadi jiital kurus di tocc toccal maal amaimi ak kaala gu rëy bila irshaadi te jàngoo ba jub sëriñ Cheikh mos na ko wax daf ne leerug téere mooy leerug góor mais leerug kurus dafa jigéene ndaw du ko jiital ndaw du ko jiital alaaji malik mu ne nanga ragal lool tëb rek yor kurus di tocc toccal tëb rek yor sa kaala yow ndaw mais jàngi te zunnu anna naylaka taqdima awil amaamata kafa taq diima mu ne te zunnu da nga njortu yow ndaw li ne am na nay anna taq taqdima dem rek lijjanti ñu defal la ijaaza ne la muqaddam nga kafa taq taqdima doy nga pour nga jiitu gaañi amuk laajal borom diplôme yi borom doctorat yi ci dëkk bi bu buñ leen jëlul ci entreprise ñuy liggéey buñ xëyee duñ am mburu munu booleeg seen café duñu am suukar suñu suukaree seen kafe ndax lan diplôme yi kese mu nekkoon ijaasa kese te juboo jàngoo alaaj malik mu ne du jariñ beneen mu ne yaa jaahilal umuuri fa taxalli muqaddamun xaqan ne taxal taxalli yow mi nga xam ne danga réer réere mbir yi xamoo mbir yi ëllëg nu muy demee maa ngi lay yëgal ne balaa kenn solu daa war a sangu balaa kenn solu daa war a sangu ndaw ñi ne tey dañuy bëgg a solu te duñu sangu fu ñu tolluy jàmbat ñun jeunesse koñ bi nañ ñu jàppale association nangam nangam nangam ñun ñoo organiser fii politicien diw ñoo ko jàppale woon mais bi mu faloog léegi jaaratu fi yow foo jaar foo dem yow li sëñ Abdou waxoon ni ndaw lii du nekk mission nelaw bëccëg bi entraîner ngoon gi nuyu balance guddi gi ndaw lu war a tabax ëllëgum ci ndax loolu dina nekk mission nuyu de balance ba quatre heures de matin nga tëdd nelaw ba onze heures dix heures nga yeew fekk ñu teg añ naan may leen ma tàngal ndox maire may ma foofu noonu cent franc sa yaay fajar lay yeew mooy li nga wax léegi ci ginnaaw mag ñi noppalooguñ wax ju am solo la dëgg la noppalooguñ cinq heures de matin ngay fekk maire ñu yanu seen i paan dem marché jën pour jën di jën te seen doom cinq heures ba seen yaay jug la ñuy tëdd si di bu góor mënoon na dem Sandaga mënoon dem Colobane mënoon dem feneen pour jaay nekk marchand ambulant mais yaa ngi layoo ne jàng naa ba ami diplôme diplôme kese lu muy jëriñ moteur sans oto du dem oto sans moteur du dem mais sa yaay bu xëyee jaay jën dem sonn dem ma jëndi jën fajar dem jaay ñëw 11h mu wàcc nga ñëw yaay may ma 200 yaay may ma lu ma jëndee kafe yaay nangam mais xa mère xaaral rek bés bu ma fayee ko sa xol dana sedd dama lay yóbbu màkk di gëmloo sa yaay muy seral xolam rek. ay sama doom ji ni mu amee yéene ci man sa doom ji am yéene ci yow te amul jom mais ban dama xëy sotti jàppanteeg sa rakk yu jigéen yi ci biir kër gi yëpp ñu am nañ jom teel nañoo yeew bale lañ mën a fóot ak togg ak dem bu ñu duggee marché ñu indi ñu togg jàppanteek ñoom teggi leen ma teg dangeen ma bañ li ma liggéeyut la nekk ci loolu ba bëccëg ñu teg bool nga tëb dóor pare laaj foofu noonu loo jëndee ataaya teg sa ataaya boo xam ne deux heures de sa temps ñaani ñaar fukk pour jënd journal boo liir ngoon gi nga gàddu sa bal football yi guddi gi nga seeti xale yu jigéen yi ba min wi nga tër si nuit de balance déglu fanaanee déglu musique fanaanee seetaani film ba fajar nga tëdd ne yaay ndaw li war a tabaxum penc alaaj malik mu ne kon fa taxal lii muqaddamun aqi mina taxal lii balaa ngaa solu mais dangaa sangu mu ni wa fi'lu ma'murin wa tarku maa yi fa dalika al asraaru saahinta bi ndaw ñoo xam ne am na ñoo xam ne sa jaaruñ ci beneen côté mais beneen côté biñ jaar mooy jàpp ne yor kurus di tocc toccal mooy tax affaire yi dikk mm-hmm. Seydina Omar bi mu fekkee waa ji ci jàkka ji yor kurus gi tocc te allahumma suqni fiddatan wa dahaban kathiran dafa génne karwaas gi ne ko ko tip ne mm-hmm. yàlla ji du taw wurus du taw xaalis mm-hmm. mais yow nga jàpp ne toog yor sa kurus tocc toccal sa modom yi liggéey loolu mooy tax nga am dara fu ñu la fekk yaa ngi yor kurus gu gudd ngam di per nas ko di tocc toccal kaar yeeg fu ne boo demee sa atelier wala liggéey sax sa patron di la liggéeyloo yaa ngi yor kurus gi ne da ngay tocc toccal mais kurus dafa am heure liggéey bi am heure bul jaxasee ñaari bu ne programme lay dox hmm? mais fu ñu la fekk yaa ngi yor kurus tocc tocc tocc alaaj Malik mu ne hey maa ngi lay yëgal ne fexe ba sellal sa bopp mooy asraar bi nuy wax dëgg mooy sellal bu ñuy wax lasraar dëgg alaaji Malik mu ne mooy sellal mu ne wa maa yuqaalu innahu l anwaaru ma tarki sa ma ma tarki salaatin ah filu cheytaanin waqa wa maa yuqaalu innahu l asraaru ma tarki salaatin filu cheytaanin waqa wa man daxal xaala wa kaana gaafila ani takaafu takaalifi wa kaana jahila naudu billahi min aljahaala wa kullu maa yu addii wa kullu maa yu addiihaa bi kulli saa mu ni li ñuy wooye naan damaa am leer man dama zikkar ba am leer di ndaw dama naan ci leer yi dama waa dama yéeg dama yegg yegg te doo yeggale dara looy tabax tabax am réew yegg tabaxu ko mais boo foo yegg jëm yaa ngi yegg ci biir kër gi dañ lay yóbbaale yonent bi biñ ko waxee benn waay ne ko diw de ku mën a julli la ku mën a woon mu ne waa moom ku koy dundal ñu ne ko ah benn fereeram na mooy liggéey moom moo koy dundal mu ne kooku ko gën foofu kat te moo dàq julli moo dàq woor mais yaay tocc toccal boo naanee ci ne yéeg nga naan ci leeri ba màndi boo ñëwee naan ci ndoxum kër gi mi nga xam ne facture bi doo fay naan ci leeri ba màndi ba noppi ceebu kër gi doo ci participer da ngay pare ñu teg bool bi nga dóor ba sonn mais demal ko wuti ceeb ak ndox boo ci lekkee ba suur soog di naan ci leeri alaaji malik mu ne nag ku naan ci leer yi ba noppi bàyyi li yàlla sa euh, santaane mu ne kooku bu nuy wër seytaane nañ la jàpp mu résumé thème bi ci benn bayit moom laay euh, yam jox la mu ni wa hakada jahalatu subaani naudu billahi min asheytaani mu wax ak yeneen yu bari yu mu siti ci yu mel noonu ci leer ak yu mel noonu mu ne ndeysaan ndaw ñi man alaaj malik di ma leen a yërëm ndax dañoo réer yàlla yàlla musal nañu ci seytaane ndax loolu liggéeyu seytaane rek la mu yóbbee ndaw ñi bëgg lu yomb bëgg lu yomb ku nekk bëgg nga tekki te doo takku te dama ne ku takku tekki doo tekki waa ji ba mu ne tukki tekki ma ne déedéet toog takk takku mhm. tekki ku toog takk jabar takku tekki mhm. waaye ku bëgg tekki te takkuwoo doo tekki toog takk takku tekki oustaz <laughs> waaw subaarakallaahu am na solo kon su ma la déggee foofu euh, jeunes yi benn dégguñu li Seydi Hadj Malick di wax ne dundal diine ba noppi euh, dundal diine jaare ko ci xam-xam looloo tax ñu euh, toog rek yore seen kurus di kocc koccal te Pape Malick si tamit am na lu mu ñu mës jàngal ne suñu borom boo toogee daf naan kii amul jot waaye nit boo jógee mu dabi la kon nit ki dafa war a jóg euh, dem wuti ji yëngatu euh, toog euh, takk bii tamit teel a takk jabar moom xam naa day tax fas jom mm-hmm. ku ta toog takk jabar moom faaw nga takku ndax mën a am loo ko jox mm-hmm. tabaarkalaaw boo dee gor kon jaajëf sëñ Matar mu bàyyi rek Daawda mu ñëw waaw kay jërëjëf Aïcha jërëjëf sëñ Muxtaar fi tàmbalee ba fii lépp wane rek nii ndeke tabax am réew du n'importe kii moo ko mën ndax génneel nga ñu ñi nga xam ne ñoom duñ ko mën ba mukk ba abadan muy ku mel ni lutteur beeg ak ñu am esprit boobu génneel nga ñu tamit euh, keneen muy koo xam ne yaakaar nañ dafa war toog rek jaamu yàlla faste ay loxoom ñu ko yóbbaale ci kër gi di ko man kooku it génneel nga ñu kon kooku bokkul ci ñi ngi war a tabax réew ëllëg ñuy ñaar ñoo xam ne ñu mëtt bàyyi xel lañu ak ñeneen ñoo xam ne làqu nañ ci biir waaye wax nga ni ñu it ki nga xam ne moo war a mën a tabaxi réew ëllëg dafa koy jaare ci xam-xam dafa war a nekk ndaw lu am xam-xam ndaw lu am détermination ndaw lu takku pour mën a tabax am réewam indil ga ñu tamit euh, ay référence ku mel ni Seydi Hadji Malick li nga xam ne ni tey def na ko ci ndaw ñi waaye dañuy ñëwaat euh, ci beneen euh, invité bi muy oustaz Dame Kairé su ko defee nag jéem a joindre ñu ci téléphone bi ñoom it pour ndax ci thème bi la ñu bokk ñoom it ñu indi seet xalaat waaye balaa ñuy dem ci téléphone bi rek ñu ñëw ak oustaz Dame Kairé ci thème bi as sababu masuliyatul bina waaw jërëjëf xaaji Daouda jërëjëf xaaji Moxtaar jërëjëf soxna mel ni kàdd yi fi jote jib fa tabaarakallaahu ak yépp am na solo mu mel ni ndaw moom mënul bañ ñàkk yëngu dañuy wax toujours ndaw rabbun tabaaraka wala ndaw rabbin ndaat saay <laughs> dangay nekk ci rëbbun tabaaraka ji walla nga nekk ci rëbbun ndaat saay ji mu mel ni rëbbun ndaat saay nag moom li ci nekk ci ay musiba kenn xamul nu mu toll moo tax Oustaz Maxtaar junj ko ci bu muy wax littër yi xam nga wax naa fi keroog bu yàggul ni léegi réew mi benn système lañ favoriser mooy système LMD te mooy lutte musique ak danse te xam nga yooyu yépp tey ñi ngi xiirtal ndaw ñi naan leen fii la bu ngeen bëggee seen àdduna baax ñëw leen fii bu ngeen bëggee teral seen ndey yóbbu leen màkka ñëw leen fii bu ngeen bëggee doon ay star bu ngeen bëggee seen avenir baax ñëw leen fii mm-hmm. mel na oustaz moxtar mi ak oustaz Daouda seen njariñ ci réew mi mm-hmm. tey bu ñu fi jóge woon ne dañu bëgg dem États-Unis bëgg a dem France bëgga a tukki ambassade bu dem duñ leen may visa wala boog danañ danañ ca sonn lool waaye da ngay nekk benn ndaw rek nekk ci système boobu LMD euh, benn single rek ngay génne moo xam single bi sax xëy na ay saaga la parce que yooyu après dinañ ci ñëw parce que léegi daanaka li ñu ñuy dégtal yépp ay saaga la mu mel ni euh, single boobu ngay génnee boo ñëwee ambassade boo dem ñu may la visa mel na loolu ay faveur la yoo xam ne dañuy favoriser ndaw ñi ne leen bu ngeen bëggee avancé ñëw leen ci yoon bii loolu nag politique bu fi yàgg la mi ngi doore caanaka ca na état yu bari donne ko ci moom xam dafa bokkoon ci firaw na bi politique gu Firawna mooy yuzabbixuuna abnaakum wa yastaxyuuna nisaakum moom na comme dictateur la woon mm-hmm. lu ko neex maa maa maa moom maa sañ maa am yooyu la doon doxal mm-hmm. mu yëg ni bu ndaw ñi bare mm-hmm. ci liggéey amul bu ndaw ñi bare te yeewu nañ bu ndaw ñi bare te li war ci ñoom defu ko ndaw ñi mën nañu dajaloo bis rekk fipp dal ci kawam mu tëral programme def na ko ñaari yoon bii dañ na ko ki lay folli ren lay juddu mu def benn programme planning familial comme tey euh, ku juddu di góor rek ñu rey mais defaat na ko beneen yoon boo xam ni système bi moo tax mu def ko ba ndaw ñi bari ba ndaw ñi yeewu ku juddu di góor rek ñu rey ku judd di jigéen ñu booyal tey aussi ba léegi suñu état yi ñu ngi doxal même système boobu rayatuñ par paaka rayatuñ par jaasi rayatuñ par leneen mais conscience nit ki la ñuy rey jeune bi lañuy rey conscience ba dootul xalaat xalaat bu baax nga xam ne benn système rek mooy système bi ma wax nii rek moom lay xalaate moom lay jàpp ne moom mooy dund bu defee la ca kaw du ko xool la ca kaw du ko bàyyi xel moom jàpp na ne mi ngi dundal boppam mu ngi dundal ndeyam mi ngi yóbbu màkkaam eh, eh, eh, yaayam màkka wala papaam màkka kon affaire am baax na te dund nit ëpp na loolu mu mel ne ndaw daal mhm. moom mooy société waa benn waykatu arab bu wax ni mhm. araani sababal umma mhm. unabbi'uka bi mustaqbaliha mhm. wan ma sa ndawi jamono mhm. ma wax la sa ëllëgu réew mhm. jamono ma wax la sa ëllëgu réew mel ni réew nu ay ndawam mel bu ëllëgee noonu la ay magam di mel wala noonu la réew ma di mel ndax comme ku dem mag dem ku demul mag dem bu mag ñëpp demee bàyyi fi xale yi te fekk xale yi meluñu ni ñu war a mel laa musiba mooy am dëgg la ko defee kon waxtaan bi am na solo mu mel ni ah ndaw ñi fokk ñu deltuwaat gannaaw xam ne système bii ñu leen dugal ay naxe rekk la lépp ay caaxaan la te fi mu leen di yóbbe ci toroxtaange la leen di yóbbe hmm. ak alkande oustaz hmm. oustaz maxtar wax na ko léegi hmm. réew doole walla ponkal ay nit ñu ngand du ko doxal amul benn réew boo xam ne benn sport euh, discipline ci euh, sport moo ko doxal amul Brésil mooy dëkk bi nga xam ne moo ëpp lim jël coupe du monde waaye tey li nekk rêve brésilien yi mooy doon moodu moodu <laughs> kenn bëggatu toog Brésil ñoom ñëpp bëgg na ñëw Europe wala Occident États-Unis pour doon ay moodu moodu comme ñoom seen métier li ci gën a fort mooy football mm-hmm. ah bu ñu demee Europe dem football am ñoom Ronaldinho ay footballeur ay moodu moodu lañ mm-hmm. ñoom Kaka ay moodu moodu lañ ñoom Robinho ay moodu moodu lañ mm-hmm. nga gis ne kon amul benn réew boo xam ne mm-hmm. sport moo ko développé te nga gis ni système bi ñu doon wax léegi mooy tëgg ak fecc bu njëkk teraanga Sénégal teraanga Sénégal amul benn yoon bu ñu tudd senegal te duñ tudd teraanga Sénégal pays de la teranga mm-hmm. Sénégal réewu teraanga mm-hmm. teranga jooju du ñam wu ñu lay jox nga di ko lekk mm-hmm. du ndox mu neex mu ñu lay jox nga di ko naan du mat la bu nooy bu ñu lay jox nga di ci tëdd waaye teranga boobu ay valeur la woon kon oustaz ay teg foofu sa loxo ci valeur yi ñu ñëw ko euh, mbokk mi ci ligne bi moom it ci invité yi la bokk muy seex tijaan juuf dëkk nekk fii ci Rufisque di membre COSCAS ñu génne woon benn thème central euh, boo xam ne al islaamu dawa ul mutaawa lañ ko tuddee waaye am ci sous-thème tey lii nga xam ne moom la ñuy waxtaane kon oustaz Cheikh allo su ko defee kon ñu jokkook euh, oustaz Cheikh rek ci ligne bi euh, moom it comme ni ma ko présenté léegi su ko defee euh, soxna Aïcha dégg nga daam tamit dafa mel ni daf la rejoindre parce que li nga tudd nga mag ñi waaye moom it tudd na mag ñi te mag ñi dafa mel ni kon ñi am nañu responsabilité bu rëy ci biir yàqu xale yi parce que mag xëy dem liggéey ji te jàngalul xale comme ni ko oustaz njëkkee junj ci xale baak paaba nee na ko man bàyyi ni ma mel yaa ma ni mel nga ñëw confirmer ko waaye oustaz damit confirmer ko mais tey situé ay responsable muy euh, ñi ŋànk réew mi nga xam ne ñoo waroon fexe tey valeurs yooyu baax ñooñu tey ñoo seetaan valeurs yi baax yi indi valeurs yi nga xam ne xëy na réew mi du développé te ñoom ñu bëgg ko développé est-ce que loolu dina sotti soxna Aïcha waaw Euh, ndax euh, dafa mel nii xëj na ñoom loolu moo leen arrangé oustaz wax na ko nga xam ne ndaw ñi duñu duñu yeewu euh, duñu am xam-xam et puis duñu bëgg lu baax ndax comme ni mu ko dañuy rey seen conscience waaye mën naa dolli ne dañuy rey yi tamit seen xol ba nga xam ne dootuñu am yenn yëg-yëg ndax am na loo xam ne xol rek moo ko mën a yëg xam-xam dëgg la ci xel waaye xol moo koy yëg ngir mën la Euh, wan fa ngay jublu mën fa teg sa tànk mm-hmm. bu ñu lay orienté yi tamit li ngay yëg ci sa xol lay dugg mm-hmm. waaw ba nga xam ne itamit euh, yow sa digganteeg ak sa moroom itamit ngir nga mën ko fonk ngir nga mën ko euh, maanaa bañal li ngay bañ mm-hmm. ngir nga mën ko bëggal xëñ na lu baax li nga xam ne yow loolu nga bëgg il faut que sa xol Euh, itamit euh, nga mën ci def sa moroom ba nga xam ne euh, doo ko man doo ko doo ko néeg a sànq mm. doo ko doo ko néeg a itamit maanaam wax lu bon wala xëj na jubal foo xam ne yow doo fa jubal sa sa sa njaboot mm. tabaarakallaahu oustaz waaye man ne dinaa am question boo xam ne tamit dinaa ko posé mm. ndax fii ñu toll nii xëj na situé nañu responsabilité yi nee nañu li ci ëpp mag ñi la mm-hmm. wala boog société bi la mm-hmm. te société bi société bi mag ñi xëy na ñoo ko ñoo ko ŋànk léegi nag jeunes yi ñoom wax nañ lan lañu war a def oustaz euh, Makhtar wax na ko nee na nañu jàngi mhm. nañu uti xam-xam xëj na ñoom xëy na am na si ñu si jàng sax ndax wax na ko ñu nekk université am ay diplôme toog waaye xëy na formation bi nga xam ne moom la ñu war a am mhm. moo des mhm. ndax mën nga jàng am ay diplôme te doo am formation ngir mën a euh, am ay outils yooyu liggéeyee te formation faw mu ànd ak orientation jeunes oh, oh, waaw aha kon oustaz waaw kon ñu waaw kay ñu jël ki ci ah. ligne bi mhm. moom it euh, oustaz Cheikh. asalaamaaleykum. waaleykum salaam yaa oustaz na nga def. oustaz Daouda ñu ngi leen di ziar. Gaza mhm. nu na ngeen def ak coono yi. ñu bokk ak yéen jotaay boobu di ko rafetlu. Mhm. di ñaan yàlla na yàlla dolli leen tawféex. amiin. di ñaan it ñiy dégg yàlla may leen dégg. mawdu boobu liñ ci jàpp comme. mooy pour ndaw ñi defar. Euh, waajur yi am na lu ñu war ñoo war a jëkke taxawaay. taxawaay boobu jur yi ak yarkat yi xamante ne xale yi danañ jaar ci seeni loxo. ñooñu ñoo war a jëkk def taxawaay. waajal ndaw yi ngir. ëllëg bu ñu demee ba nga xamante ne responsabilité yi taxaw seen diine ak seen société mhm. yëpp ñoom danañ ko mën a àttan boo demee ci euh, téere risaala mhm. bu ibnu abi zeyd mhm. te su ubbee ga dafay wax ni mm. li yi nga xamante ne dañu bëgg yiw mm. te di sonne pour am yiw waaw li ñu war a gën a sonne mooy fexe ba ji jiital yiw ci xolu doomu jullit ñi ngir yiw woowu bu jiital ci xolu doomu jullit ñi rek hmm. duñ ko màggaalee hmm. responsabilité bi nga hmm. jotee pour war ko yem danañ ko àttan moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni doom dañ koy yaat ci ñetti juróom-ñaar juróom-ñaari at yu jëkk doom dañ koy sàmm Euh, toppatoo ko ngir dara bañ a gàllankoor yaramam a xelam. Mm-hmm. kenn du ko ca dóor kenn du ko ca sonal. Mm-hmm. mu ne ci jur. Oh, kon mu mel ni juróom-ñaari at ci digg bi la. waaw ci la koy yar ci la koy jàngal. juróom-ñaari yi ci topp muy euh, quatorze ans jëm foofu mm-hmm. nag dafay ànd ak moom lu bari jàngal ko. adduna wan koy doxali. nga dellu ci. Euh, alquran mm-hmm. suratul luqmaan mm-hmm. yàlla wax ne mm-hmm. euh, lu yonent yàlla xakim euh, boobu nga xam ne mooy luqmaan dafa daan dénk doomam di waxtaan ak moom yaa bunayya laa tushrik billaah inna shirka la zulmun aziim di gunge li nga xamante ne mooy li nekk ci kanamam kon dañuy gis ne gannaaw bu ñu jàngalee ndaw yi préparé leen mm. aywa bu ñu gaaw a démissionné seen ah. digganteeg suñu digganteeg ñoom uh-huh. nga di leen gunge. Mhm. Mhm. Mhm. ci boo gisee tey ndaw dafa bokk ci tabi'a ndaw muy roy. ah. waaw kay kon dafa mel ni euh, oustaz ci na waaye xam naa dina dellusiwaat ci buum gi su ko defee ay sa balaa ñuy dem ci commenté bi rek am na foo tolloon ñu bàyyi nga àggale ñu soogay dellusiwaat incha allah. moom sax oustaz am na ci lu mu indi ci li ma junj mooy mhm. xolu ndaw ñi la ñu war a njëkk euh, defar ba noppi mhm. mel na ni ñoom seen xol la ñu rey mhm. euh, formation tamit fa laa taxawoon ne formation foofu mu ànd ak orientation te moom bi oustaz wax na ko nee na ñi nga xam ne ñoom ñooy orienté jeunes yi ñooñu tamit war nañu wax jot na pour ñu pour ñu pour ñu wax ñoom i tamit euh, fexe orienté leen ñu ni fi nga xam ne foofu lañ leen war a orienté ndax mel na ni ñoom tamit li ñu leen di wax rek xëj na ñeen ñenn dinañ ma baal eh, kilifa yi eh, sëriñ bi daal da ñëw rek mu jox la ne la daal weddal tur yi nga yore sa kurus rek di kocci koccal ak eh, boo amee as tuut rek dem yóbbul ko mm-hmm. ba nga xam ne itamit tous les moyens son bons uh-huh. ki dem bëre ji mën na indi ñëw jox la ki dem foy ji ñëw indi ñëw jox la waaye duñ leen wax ni tamit li nga may jox na sell mm-hmm. na lew na dagan waaw voilà kon euh, léegi fi mu nii kon nan la jeunes yi war a def kon oustaz. waaw ndegam mag ñaa nga toog ca euh, waroon a toog ca kër ya ñoom génn nañu. mag ñaa ngi ca tool ya xale yaa ngi ca kër gay noppalu. su ko defee dañuy ànd ak yaay booy yi su ko defee dañuy ànd ak Ablaye ci kilifa yi. Mm-hmm. Ah, am luñ leen jagleel rek doog di dellu siwaat fii ci plateau bi. Mm-hmm. su ko defee Ablaye ñu ànd ak kilifa yi rek ci yaay booy. jagleel leen ko dellusiwaat dans cinq minutes incha allah. man sa doom ma taxaw te di yu ma dul fàtte ba may dugg pax yaay yaay man sa doom ko muñ juróom ñeenti weer yi ci sa biir bi daan nga ñaaru loolu mënoon nga caaga sax yow sama yaay yaay ma sada ma di wax billaay si yu ma dul faate ba may dugg pax yaay doon liir nga may nampal ci sam saw ndax bëgg ma màgg ba dëgër ba samay yax du fa nax sama yaay abada xaw te di si nga yu ma dul fàtte ba ba may dugg pax yaay metti woon nga di ko muñ juróom ñeenti weer yi ma ci sa biir daan wi ñaaru loolu mënoon nga caaga sax ma judd liir nga may nampal ci sam soow ndax bëgg ma mag gi ba samay yax du fënax toppatoo nga ma kom na muy toppatoo doomam petax nu raw na muy sàmme doomam ci tàggam du pëtax yaa ma daan uuf di ma boot di ma tette ba ma xëy dox daan ma sang di ma solal daan ma jox ñam ci ndox lu baax ci yow laa koy royee ba yaa def li tax fu ma dem dégg seeni laaj mën a firi seeni cax du ma fàtte xanaa di la ñaanal ci yàlla lu baax mu yërëm la yiir la comme nag ma daan def laata samay bañ di sax nga dund ba dund sàppi la nga dem aljanna ni fa faax yàlla yàlla nangu lii ci barke ka waroon bu raax mënu sama yaay ba daaneel te tudduma baay ba ma juddoo moo ma rayal xartu tee ma turu baax ba ma juddoo sama baaya ma leewu jox ma imaam mu noddu ndey joor li xam ca mooy jàng naasi ak falax juróom ñaari at ma am ko sama baay xëy ni ma doom tey dangay jàng bir moo xam ni yàlla ko wax yow sama yaay man sa doom ma taxaw tey di wax si nga neel yu ma dul fàtte ba may waaw ah, kay euh, kon mbokki albayaan fii ci Dakar ci Arabie Azur 103 point 6 ci waaye albayaan sénégal point ci internet bi euh, euh, seen mbokku Daouda Camara ci micro bi waaye jàkkaarloog Ablaye ci wàllu technique bi toog ak seen invité yu baax yi oustaz Makhtar euh, oustaz Dame Kayre waaye oustaz Cheikh Tidiane ci ligne bi ak ki ñi xaarandi muy universitaire bi moom it mu war a indi xalaatam waaye ma ànd ak émission bii di lislaam pluralité et dialogue ak soxna Aïcha su ko defee kon mu mel ni soxna Aïcha ba tey rek wax nañu ni yaay yooyu tey jii ñu doon dégg baay yooyu ba tey seen loxo génnagul ci mbir mi dégg nga oustaz Cheikh Tidiane su mu indi ci ñetti juróom-ñaar yi nga xam ne moom la yonent bi kon daf ko accompagner moom ba 21 ans mu ngi accompagner ndaw loolu bi tabax réew indi na it yonent yàlla luqumaan wala boog nitu yàlla bu baax boobu di luqumaan moom it it gis nga fi mu topp doom ci di ko xamal di ko yee di ko yee bàyyiwu ko benn yoon kon téye na ci loxoom ñu ànd di sàmm ji loolu kon euh, Oustaz Dame Kairé euh, euh, mag ñi mm-hmm. mag ñi ñu nga xam ne tey ñoom ñi ngi ci terrain bi mm-hmm. te terrain bi pour ndaw ñi la mag ñu gunge leen mag ñooñu kon tey ci lan lañ leen war a waxaat pour ñu dellusi ci pour ndaw ñi mën a xajal ndaw ñi ci terrain bi ñoom ñu toog ci kër yi. jërëjëf Oustaz Daouda jërëjëf Soxna Aïcha fu mel ne laaj bi am na solo mu mel ne ndaw mënul jëm ca kanam lu dul dafay am ñu koy teete ndax yàlla dafa wax ni ci suuratu luqmaan wattabi sabila man ba ilayya na nga jaar yoonu ku jëm ci man mu mel ne ba taalibe ba ànd ak sëriñ ba mhm. sëriñ ba réer geesun taalibe bi na ah, diw ñun de dafa mel ne réer nañ <laughs> mu ah, sëriñ kay bul wax réer nañ danga naan man réer naa <laughs> ndax man maa ngi topp ci sa ginnaaw ci say tànk laay topp mhm. kon yow yaa réer waaye man réeruma mu mel ne kon li wolof di wax ne weñ gaa nga dammee ca mbànjaxaan ga mhm. loolu mooy dëgg mhm. bu ñuy seetlu tey mag ñi nga xam ne ñoo war a orienté xale yi mm. bu ñu ko ñemee dañuy wax ne mag ñi merul ñu nu war a mel mhm. boo gisee tey musiba yi am yépp daanaka desal ginnaaw bi mag ñi des ginnaaw ci wàllu éducation moo ko waral mhm. parce que daanaka yaratun dañuy yor mhm. léegi sa doom ji nga am ci kër gi mook sa xar mi nga amee ci kër gi ñoo bokk yam parce que sa doom ji ko li nga ko ameel mooy bu lekk jotee nga jox ko mu lekk bu naan jotee nga jox ko mu naan bu sangu ak sol yére jotee nga defal ko ko mhm. fa tabaarakallaahu bu tëdd jotee nga defal ko ko mel ne loolu même wàccuwaay boobu moom la xar mi am ci kër gi mhm. bu lekk jotee di nga ko jox mu lekk mhm. bu naan jotee di nga ko jox mu naan bu tëdd jotee di nga ko wutal fu mu tëdd mel ne kon mën nañ wax ne mag ñi la yu bëri yaratuñ mais dañuy yor. dañuy yor ah. xam nga alfarqu bay na yar wa yor. Mhm. léegi yaratuñ mais dañuy yor. dañuy fexe rek dundal la. Mhm. mais li war ci yow ci ay teggin ak ya ca ajug daanaka talatuñ ko sax. dëgg beneen bi soxna si junj na ko léegi. mooy jëm ci wàll ba léegi ñi nga xam ne ñoo war a orienté ndaw ñi. xam nga ndaw ñi bi ñu. yëkkatikoo am na ñu dem ca système bële. Uh-huh. ñu doon wax léegi mooy LMD. waaw ah, am na kon ku dellu si waat Oustaz Cheikh Tidiane allo yaa Oustaz. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi jégalu ci ndog bi am léegi. dëgg la. Eh, comme ni ko waxee. Uh-huh. gannaaw taxawaayu mooy jur. Uh-huh. ci yar bi. jàngal bi ba at ñaar at ak benn. fi ne gunge moo ciy def. Euh, jamono toll na foo xam ni hmm. dafa dafa bokk ci tabi'am muy roy. Hmm. roy googu nag. Hmm. Euh, foog muy julli ak kilifa yi di gunge ndaw ji. ci étape boobu. ndax euh, da demee suuratu Shams yàlla ci bopp ci wàllu bakkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kon bakken na ko yàlla bindee. Hmm. moom mën na adopté lu baax waaye mën na adopté lu bon. Hmm. kon foog kilifa yi di gunge ndaw ñi ci yi nga xamante ne ñu ngi koy dund. Hmm. média baa ngi fi internet baa ngi fi leneen a ngi fi occident occidentaux yi ñu ngi indi seen euh, civilisation. ci àdduna yëpp di ko tasaare. kon yarkat yi war na ñu xool seeni ndaw bu sa doom euh, bu sa doom duggee ci façon boo xamante ne du façon bu rafet. nga woo ko waxtaan ak moom boo ko ne fii kat du sa cër. ndeysaan ci wàllu colin bi. Mhm. ci wàllu waxin bi. Mhm. ci wàllu jëfin bi. Mhm. yooyu yëpp ñu di ci gunge ndaw ñi. loolu xalaat naa ni su fekkee ne kilifa yi taxawee nañu taxawaay boobu. ndaw ñi danañu mën a rëcc ci yu bari. ndax euh, ni ñu mën a ni ñu li leen yare ci lu baax ñu war a continuer ci lu baax loolu. seen tabia mën na topp lu baax. kon nit ñi topp hmm. la kon a raw. bu ma waaw Oustaz Cheikh balaa ngaa tëj. Hmm. allo waaw kay dama dégg boobu léegi yéen a ngi wax mag ñi. Hmm. waaw euh, ñoom ñoo war a yar. waaw mag ñi waaw. waaw dégg nga Oustaz Dame Kairé nee na dañuy yor waaye yaratuñu. waaw léegi. kon est-ce que kon fi ñuy xaar ndaw ñi daan fa mës a kon. dégguma. ma ne kon ndax fi ñuy xaari ndaw ñi daan fa àggi gannaaw moom moo waroon a tabax muy ndaw. Mm-hmm. ki ko waroon a dimbale mu tabax léegi dimbaleetu ko mu tabax. waaye daf ko gérer di ko defal li mu waroon a def. kon moom ndaw moom est-ce que ñu ngi séenu mu tabax dara ci avenir am. waaw ndaw. su fekkee ne yar nañ ko ko war a yare comme noonu mm-hmm. ba mu àgg ñaar fukki at ak benn yooyu yoon bi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam sallallahu mm-hmm. ndaw loolu mm. yàlla mën na ko mën na ko musal yi nga xamante ne day yàq yëpp mu mucc ci dëgg la ndax euh, li war wéyjur li war yarkat mm-hmm. def la nga xamante ne moom la mooy li ko war mooy li dañuy dellu ci li yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam aha innaka la tahdi man ahbabta aha rahdi man yasha kon kii yar day def li ko war aha bàyyeeg bàyyeeg yàlla nag yàlla yàlla mooy mottali machi am ci ci doomu aadama ci doomu aadama ji kenn ku nekk sa sa sa sa sa yàlla jubal jiitu na sa juddu defee euh, ginnaaw bi nga wàccee ak gane àdduna nag ña la war a yar yar la yàlla mooy mottali nag ma ci am ci yow dëgg la moo tax bari na ku ñu yar mu dem ba ci kaw jàdd moo tax ñuy ñaan euh, euh, duwaaw rabbana rabbana laa ba qulubana wallaay de waaw kon dañuy xam ne rek yarkat yi wala wéyjur yi buñ taxawee seen taxawaay mën nañ bàyyi li des ak suñu borom subhaanahu wa taala waaw macha allah. waaw kay jërëjëf oustaz waaye nag ci kanam tuuti danañ jokkowaat ak yow. waaw waaw waaw incha allah jërëjëf. kon mu mel ni oustaz li mu ko laaj rek laa lay laaj waaye moom féetale wax na ni jur bi bu defee li mu war a def ba noppi li des na ko bàyyi ci loxo yàlla. Mm-hmm. waaw léegi yow it ba tey damay baamuwaat laaj bi. Mm-hmm. est ndaw li waroon na tabax. mag toog fa place boobu nga xam ne fa la ndaw waroon toog pour tabax. Mm-hmm. est ndaw kon dana tabax yi. waa doo dana mën a tabax sax bu nu boolee kenn ku nekk la mu am mm-hmm. ndaw dooleem la am mag xelam la am mm-hmm. bu ndaw ñi dégloo mag ñi mm-hmm. déggal mag ñi dégloo déggal lu nu dëgmal daan ko bu ndaw dégloo mag déggal ko lu nu dëgmal daan ko waaye ndaw ñi tey dégluwunu mag ñi nu mag ñi <laughs> ki ñuy déglu mooy rapport bi mhm. ki nuy déglu mooy star bi mhm. démb rek maa ngi koy wax seriñ Fallou bi ñu jógee Sandaga fi man fi ñu toog sama xarit la day liggéey ci di dugalaate ay son ak yooyu mhm. ku ñëw dugalal ma Jalibaa Koyaate e. woyam yëpp dugalal ma ko Jalibaa Koyaate fu mu dëkk déet kay musicien yu bari ne ah. dugalal ma ko ma ne ko waa jàngkat yi nag mu ne nga defal ma ci nag mbay doonde <laughs> waaye nag def ci tuuti rek xam nga nag dañuy jaxase affaire yi dégg nga de def ci mbay doonde waaye tuuti nag <laughs> te xam naa li ma ne ko sax jàngkat yi nag kuñ la ci defal moo tax mu rëccantu def loolu te boo ko laajee Mouhamad lay tudd mm-hmm. boo ko laajee Maodo sax mën na koo tudd mën na tudd Babacar mën na tudd Abdoul Aziz waaye ki koy intéressé ki muy déglu uh-huh. mooy mbalaxkat bi ñu naan mm-hmm. Euh, woykat yi ay éducateur lañ ay éducatrice lañu uh-huh. waaw la ñuy wax dañuy yeete uh-huh. man leen bu fekkee Alioune Sall ca fajar ca ca ca Sud FM yeetewut uh-huh. oustaz Mor Thiam ca fajar ca RFM yeetewut oustaz Adi Niass ca Walfadjri yeetewut musicien bu ne la dalay yee dalay yeetal dalay yeetal mos <laughs> ñu bëri dañu jàpp ne kii day yeete mais dafay yeetalaate lu tax muy yeetalaate mooy bu naan la ko sopp sëñ Babacar si yëkkati sa loxo sa kaw nga ne woo la loo soppee sëñ bi billet cinq mille franc nga jënd. Mm. wala billet cinquante mille dugg. Mm. mu taxaw wéyal la nga pàkkar ñi ñàkk tooy xepp. Mm. raj raj loo. ba noppi ñu ne ko sopp sëñ diw yëkkati sa loxo nga ne kooku moo la yee mm-hmm. mais ku lay yee da dalay bàyyi nga dal mm-hmm. nit ki bu dalul mënoo ko yee mm-hmm. tey boo gisee waaraate nit di ko déglu ba xolom bi ak fu sori mooy dafa toog concentré wu bàyyi xel li nuy wax waaye mënoo boole pàkkar ñi ak di wengaloo ko dëngaloo ko dëngal ba noppi naan yaa ngi déglu lu la yee mënu la nekk kon ndaw ñi déglu mag ñi déglootuñu mag ñi rapport bi la ñuy déglu rapport ba nga xam ne comme li nga wax léegi buy wax day saaga bu wax day xase léegi jël nañ rapport installé ko Sénégal mel ne war nañ fi am baat te ñëpp ndaw ñi la sol sa jëngal ni may wax ba ma la ma waxoon ci sama rab ba xalaas ci goney ndakaaru ku waarul waar nañ ma maa waaru bal beeg baal beeg bool bi butel beeg bon beeg baraade bi buñ ko amee amuñ ci kenn soxla buñ ko amul di pantal naan action la mm-hmm. moo xaar feneen ne leen ku fi simee koo ko solu ci xale yu jigéen yi bañ na la yaa ko yor sa yaay la du yow nga la kon bu ko war jarul xoggalikoo dox di jaayu bàyyil xel sa bopp jarul emaayu ndax lan ma ne la yow xale bu jigéen bi bari na ku naa la yaa ko yor te da lay yeeru mhm. li nga yor lay yóotu bu koy jël di yoor yenent bi dafa am benn xadis bu mu wax dafa togg ak waa qurayshin ndaw ñi ne leen mhm. yaa maachara shababi qurayshin laa taznu mhm. ala man xafida allahu lahu farjahu daxala aljanna yéen ndaw Qurayshin fexe leen ba bu leen njaaloo mhm. képp koo xam ne nii wattu na pëyam mi yàlla santaane ngir mu wattu ko mhm. bu dee tàbbi aljana mhm. ma ndaw ñi li leen tardel tey mooy sexe seen liggéey yëpp suba ba ngoon sexe la ah. saa si tegal foofu sa loxo dinañ ci ñëw léegi incha allahu rabbi euh, wax dëgg yàlla wax na soxna Aïcha euh, oustaz wax na lu am solo waaye su ma xoolee wax ngeen euh, solution mm-hmm. wax ngeen inconvénients yi aussi mm-hmm. wax ngeen génne ngeen problème bi yëpp yëpp yëpp génne ngeen ko teg ko ci taabal ji mm-hmm. yàlla naka ndaw ñi dégg parce que solution yi moom joxe ngeen ko muy dégg ak topp ak xam su àndee rek su boobaa ndaw dana mën a defar am réewam waaye su fekkee déggul toppul xamul su boobaa du defar am réewam kon su ko defee ñu jël ànd ak euh, mbokk mi ci ligne bi moom it ci débat bi la bokk alo allo. waaw soxna Ami. allo allo Ami Seck. waaw. waaw kay euh, yaa ngi ci Al Bayane 90 point 5 fii ci Dakar Thiaroye Azur 103 point 6 ca Tivaouane. waaw waaw ñu. waaw dëgg la. Mhm. maa ngi nuyoo Daouda asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu. di leen ziar. maa ngi nuyoo di ziar. di delloo ziar. Mhm. di leen ñaanal. waaw. yàlla yokk xéewal yi. amiin albayaan. amiin xam yal na ko waaw maa ngi kontaan trop. di rafetlu invitation bi. Mm-hmm. ba pare thème bi tamit c'est intéressant mm-hmm. parce que ndaw ndaw kuy wax waxam mm-hmm. actuellement yàqloo ko parce que ndaw yi ñoo nekk ci àdduna bi war a defar suñu jikko àddina bi donc defar jikko ba nga doonee ndaw dafa baax lool ba pare nag waajur yi war ñu ci jàppale bu baax jàppale bu baax. Mhm. parce que ndaw bàyyi boppam muy dem di dox doxam xañ na xamaat na yoon ba mu jëm bu yoon boobu moo waaye bu amee ku nekk si di ko gindi di ko wax ne ko fii la mu nangu moom jëm foofu bu ëllëgi ku nga xamante ne mooy jikko yu baax dina tax. Mhm. moom bi nga xamante ne moom laay wax si introduction. Mhm. dëgg la euh, soxna ami balaa ma lay bàyyi dinaa la wax ne la fii ñu nekk yaa ngi doon déglu première partie bi muy muy ma ne yaa ngi doon déglu première partie bi waaw ak euh, oustaz yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi ak euh, mbokk mi nga xam ne tamit moo nekkoon ci ligne bi di oustaz Cheikh Tidiane Diouf eh, ak soxna Aïssa dañu ah. cité lu bari mag ñi maa ngi déglu bu baax. déglu naa waaw kay mais aussi ñu cité état en tant que yéen nga xam ne ay universitaire ngeen. di génne mhm. ci euh, école boobu. waaw nan nga est-ce que am nga yaakaar yow ci ne cité bi mën na université bi mën nañu génneel luy defar cité bi. waaw déglu di ko ñaanal daal. leen euh, wax ne wax loolu mooy. Mm-hmm. parce que boo xoolee Sénégal yi. Mm-hmm. ko ndaw ñi dafa yàq mm-hmm. ndaw si léegi. côté comportement seen solukaay seen waxin. lépp dañ ko yàq léegi. te loo xamante ni li ñu war a nit dafa war am comportement bu di sol yére yu di wax wax bu yiw mais léegi da ngay def ci dëkk bi nga gis xam góor ñoo wàcc seen tuba yi ba kenn xamul lu muy niru mhm. xale yu jigéen yi noonu mhm. fii léegi daal da waar jikko yi léegi war nañ ko defaraat bu baax mhm. war nañu xoolaat suñu bopp bu baax dégg naa seen intervention li ñu wax loolu mooy dëkk waaw war nañoo changer comportement yi mais est-ce am nga ci yaakaar par rapport comme ni ci daara taxawee est-ce que université bi taxaw na ci noonu Hmm? ni ci daara taxawee. waaw est-ce que université bi moom taxawee na ci noonu. pour jikko yi jàpp. Ah, day na waar daara yi moom taxawee moom. Hmm. ñu ngi dox seen waar de waaye université yi des na. Hmm. des na. université yi des na. te xam nga boo gisee li waral loolu. mooy rek li ma la doon wax. dañuy roy. roy ba dàq. roy baax na mais am na roy yoo xamante ni waruñu ko roy. roy roy roy lu baax. lu bon buñ ko nga sànni ko yóbbu ko fële. université nag li fa nekk tey na waar. parce que comme ñun buñ fi université jàngaluñu culture jàngaluñu suñu coutume. bu dul culture jàmbur la ñuy jàngal coutume jàmbur lañuy ñuy jàngal. loolu mooy nekk suñu bopp. mais fekkonte ne daara yi li ñuy wane. di ko jàngal nit ñi université yi loolu la ñuy wane di jàngal nit kon it xale yi ci loolu la ñuy moom lu mu jàngul mënu koo tari xëy jàngul benn hmm. bëgg koo tari loolu day tay waar liñ hmm. hmm. loolu moo war a nekk loolu nga war a def yaa may dégg waaw dëgg la ami ku bëgg a ñun mi ci internet bi day jaar ci Sénégal euh, kii albayaan sénégal point com su ko uh-huh. defee waa université bi ñu ngi lay déglu waaye tamit waa extérieur ñu ngi lay déglu léegi ñu bëggoon nga résumer ñu ko rek en français. waaw le résumé en français. dëgg la euh, Daouda. par rapport à l'émission. j'ai bien entendu l'intervention de Sokhna Aïcha. et de son collègue. mais je dis que le thème est très intéressant. parce que quand on parle de religion. l'islam et de la. c'est très intéressant. Et quand on parle aussi de l'éducation hmm. des jeunes, c'est très intéressant. Hmm. Parce que c'est un thème qui concerne non seulement les jeunes, hmm. Parce que le comportement, c'est pas dans les jeunes, mais dans très grande part à jouer. Donc, c'est une éducation de base. Quand une personne rate son éducation de base, il ne peut pas. un, grand grâce et avoir de bons comportements. Impossible. niveau des parents et au niveau de l'université, il y a une étudiante. Pourquoi Parce qu'au niveau des universités, on nous que la culture occidentale, ce qu'on ce de la culture occidentale, et les coutumes tout, alors les dards, comportement de l'islam, mhm. mais on y passe le, bon comportement de, mhm. de, de, de, personnes Ça a la C'est qui que mhm. actuellement au Sénégal, les gens ont complètement surtout les jeunes. Leur manière de parler, leur manière de signer, leur manière de faire.

Oui. la fête des amoureux. Allô? waay allo waaw kon ah allo kon xam naa déggante bi dafa xaw a desandi après Ablaye day dellusiwaat ñu laaj ko ndax xam nga suba moom mooy ah, suba la gars yi nee di féete seen ndobel ah comme moom en tant que universitaire Eh, kon dégg-dégg jox eh, jokkoo bi dafa xawoon na jafe tuuti moo taxoon ma bëggoon rek brosser bàyyi ko moom mu dugg wax ci waaye su ko defee ab Ablaye amoon nañ ci benn élément boo xam ne moom jotoon na ci joxe opinion am mm-hmm. ci euh, feetu des amoureux amoureux su ko defee Ablaye indil ñu élément boobu rek ñu doog di dellu siwaat fii ci euh, taabal ji euh, ak soxna ami Seck kon Ablaye nga indi ñu élément boobu nga xam ne moom jotoon na ko ci wax man ci di ni doomu jullit dafa war a def li nga xamante ne ni moom la diineem santaane waaye ñun des fois am nañ benn problème suñu problème mooy lan dañuy jaxase wàllu coutume wàllu culture monde bi yaatu na lool mais diine ji diine lislaam benn diine la ku nekk nag am nga sa culture ku nekk am nga sa coutume waaw mais buñ bëggee jël coutume ak culture jàmbur jógee sa bitti ñu bëgg ko adopté di bàyyi suñuy coutume teg ko fee man ci panse que ni yaa a un problème Saint-Valentin fête des amoureux la ñu wax ay nit ñu bëggante man yaakaar naa ne ay nit bu ñu bëggantee chaque jour dañoo war a fête seen bëggeel googu chaque jour dañoo war a def loo xamante ni seen bëggeel googu day jëm ci kanam mais bu ñu tànn benn journée jour bii lañ ko jagleel man loolu moom d'accord ma si ànd ma si waaw nit ki soo ko bëggee chaque jour war nga def chaque jour war nga wane lii wane ne kii bëgg nga ko liy dëgëral seen diggante yéen ñaar waa man loolu laa amoon li nga xamante ne ni maa ngi koy wax waaye nag ñu def très attention par rapport ak coutume ak culture yi nga xamante ne nii dañ koy confondre ak yeneen yëfu jàmbur kenn ku nekk am nga li nga moom xañ na kenn ku nekk am na li nga moom suñu nit booy copier da ngay li nga xamante ne moo baax copier baax na lool mais da ngay copier li nga xamante ne moo baax loolu la la sa diine permettre nga def ko li nga xamante ne nag moomoo ko sa diine permettre ko nga teg ko fële de côté man loolu laa amoon si lu may wax si wàllu saint Euh, Oustaz dégg ngeen li wax ci wàllu Saint-Valentin bi waaye surtout man li ma ci gën a marqué indi na aada indi asaqaafa yoo xam ne nee na dañ ko ci bitti la ñëwee te boo dégloo sëñ Abdou aussi ci euh, cérémonie officielle bi passé wax nañ ci loolu tamit ni yi euh, culture bi nga xam ne ci bitti la jóge indi indil ñu ko donc soxna Aïcha lan ngay wax ci loolu nga xam ne soxna Ami wax na ko di kenn koo xam ne moom it moo fi teewaloon universitaire yi. waaw maa ngi jaajëfal soxna Ami bu baax di ko di ko ziar. moom tamit euh, di ko sargal waaye tam euh, damay wax ni xëy na léeg-léeg ki jël beneen culture jël si dara indi ci sa réew du bon léeg-léeg waaye da jël lu baax loo xam ne dina la jariñ waaye lu mel ni comme ni cette fête Saint-Valentin bii ñuy wax nii man sax damay wax ne du feetu mbëggeel feetu Nobel la ndax mbëggeel euh, Daouda man entre ñun ñii nekk na si si ñun mhm. man mii bëgg naa la ak ñoom maxtaar ñi ak ustaas mhm. waaye feetu Nobel la mhm. ndax ñi ñuy indi di teg ñaar ñoo xam ne euh, dañuy sëy wala ñoo xam ne sax sëyuñu xëy na ci mbedd mi lañu gisante rek ne kii dama ko Nobel la daal te man gisuma ci man tamit damay rejoindre ami gisuma ci benn benn loo xam ne daal amal am na avantage mm-hmm. jaaxal na ma ñu wax Saint-Valentin Saint-Valentin boo xam ne mbë da ngeen ne da ngeen bëggante mm-hmm. alors que bu ngeen bëggantee tey bu subaa ñu gis leen ngeen di reyante mm-hmm. amul sens amul sens am na yeneen yeneen i priorité yoo xam ne waroon na euh, waroon nañu ko def naa kii euh, nu mu te xaw naka laa koy waxee am nañu yeneen priorité yoo xam ne moom war nañ cee jublu kër di toog di wax affaire euh, Saint-Valentin ak yooyu. Mm-hmm. mooy li ñuy wax rek ba léegi système bi. Mm-hmm. wala xëj na société bi. Mm-hmm. fa muy jëmale jeunes yi pour xëj na ñu fàtte pour xëj na rey seeni conscience. pour xëj na rey seeni xool ba nga xam ne euh, ñoom du ñu mën a fexe du ñu mën a tabax seen réew wala duñu mën a defal seeni jikko. ci foo rek ci yooyu rek lañ leen di jublu jublal. loolu daal laa amul ci lu ma ci wax. lan lañ ci xam. ko defee du jox ustaas daam kay lobante moom bonul. bonul ci ñaar ñi xam ne xëy na dañuy sëy ak ñooñu waaye xëy na di ko di ko walee nii ci kii loolu moo nekkul woon suñu culture. loolu moom nekkul ci suñu. fësal gi daal fësal ñu koy fësal. di ko wane n'importe où. n'importe comment. moom bokkul ci suñu culture. suñu culture dëgg la jërëjëf soxna ay Aïcha mu mel ni dañuy jox ustaas daam kayre ci suba xam nga dëkk bi moom lu ñëw rek ah eh, bokk ci hmm. su ko defee est-ce que lu ñu war a bokk la wala lu ñu warta bokk la dégg nga bi moom souligné na ñaar mm. indi na al aada waaye indi na asaqaafa kon mbokk yi yéen a ngi ci albayaan 90 point 5 fii ci Dakar 103 point 6 Tiwaawan waaye ci internet bi albayaan sénégal point com seen émission l'islam pluralité et dialogue ànd ak seen mbokk Daouda Camara ci micro bi waaye lay Mar ci technique bi oustaz suba la feetu Nobel yi ñu ngi nuyu nag madame Ndaw bu baax <laughs> <laughs> fa tabaarakallah mu mel ne ni ngeen ko waxee noonu rek la ah, feet googu dafay tegu rekk ci yi nga xam ne moo ko jiitu ustaas bi muy sànq daaneel kàddoom dafa wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi soññ waa Quraysin ji sonn jigéenu jullit ñépp pour ñu moytu njaaloo mhm. mu mel ni comme ñun dañu am ay noon mhm. yoo xam ne dañu ñu bëgg a yàqal mhm. te xam nañ ni ab société ku ko bëgg a yàq li ci gën a gaaw mooy wàllu sexualité boo fa jëmalee ndaw ña rekk xamal ne système ba walla société ba yàqu na bu ñu seet dafa am yu paase. Mm-hmm. yoo xam ne benn bu ci nekk day ñëw pour tasaare njaaloo bii dafa indi dafa ñëw rek pour confirmer pour dugg ci yooyu mm-hmm. xam nga indi nañ sida mm-hmm. sida xam nga feebaru artificiel la virus la boo xam ne dañ ko créer du sama wax sëriñu Barack moo ko wax. sëriñu <laughs> sëriñam mooy nga xam ne benn pasteur la. moo takkoon sëyu Barack Obama ak Michelle Obama seen ñaari doom yi jigéen yooyu ñu am moom moo leen baptisé. wala moo leen tudd. moom bi ñuy def élection primaire u états dafa génnoon wax ay wax daf ca bokkoon ca wax ya mooy sida bi états moo ko créé. wax ni defuñu ko dara lu dul tasaare njaalo mhm. mu jina indi polémique bu rëy ci biir États-Unis ak ya ca aju pape bii war a ci fan yii mhm. première tournée af première tournée ci Afrique mhm. Yaoundé la wàcc ca Cameroun discours ci lii la mooy Sida. wax ne sida dafay ñëw pour tasaare njaaloo ndax jumtukaay yi ñu lay wax ne moom ngay def pour moytu sida ñam benn moyen rek lañu am muy jox la préservatif muy benn pour tasaare njaaloo ñaar pour tasaare njaaloo lu ñu tuddee planning familial buñ ko indee tey l'islam bañul planning familial mais bañ na planning familial ñu def ko programme national bu ko lislaam dee nangu ay cas individu lay doon mhm. mais tey biñ ko defee cas programme national études yi li mu ñu jox ci planning familial mhm. mooy gis nañ ne téeméeri jigéen yu def planning mhm. quatre-vingt pour cent yëpp amuñu jëkkër bu njëkkoon xale bu jigéen dafa doon am rapport dafa doon ragal am rapport sexuel même bu ragalul boroomam sax mhm. mais mi ngi ragal am xasu société bi mhm. jëgal jël jële ci biir wala yu mel noonu mhm. mu nekk xar xasu société bi tey indil nañ ko moyen boo xam ne mën naa am rapport sexuel te du biir te du biir kon mu mel ni daal ñoom liñ koy protéger daal mooy mën nga caaxaani ah. waaye liñ ciy ragal muy am doom du ci am yooyu dafa bokk ci système bi bokk na ci système bi li ñuy tuddee mariage précoce yooyu yëpp ci pour tasaare njaalo la Occident la jóge yi ñuy wax ñëpp Occident la jóge mm-hmm. nga xam ne xale bi dañ koy wax ne sëy dafa teel ci yow mm-hmm. tant que amoo dix huit ans wala temps ci ay at waruloo sëy mm-hmm. mais à côté ñu ngi ko ibbil benn centre bu ñu tuddee centre ado nga xam ne les adolescents centre ado nga xam ne dañ fay recevoir xale yu jigéen yi di leen jàngal rapport sexuel di ñu di leen jox ay pilule di leen jox ay préservatif bu leen sëy sëy dafa teel ci yéen mais ñëw leen ñu jàngal leen ñu jox leen nu ngeen di amee rapport sexuel te du yàq seen jàng. saa tegal foofu loolu xam nga dafay euh, continuer. moo moo ñu indi. Mhm. dafa gudd. waaw moo ñu indi tey ci Saint-Valentin bii nga xam ne. ni ko soxna si waxee du suñu aada du suñu culture. te li mu nuy yàqal dinu ko indil. Mhm. kenn xamul lu mu toll ci ay musiba. dëgg la. parce que du suñu aada benn say valentin dañ ciy joxe ay bouquet fleur. Mhm. bouquet fleur ñun du suñu aada. Mhm. am na ci réew yoo xam ne bouquet fuleur mhm. bànneex la ci ñoom. si ñu bànneex la. ça dépend ci fleur yi. am na ñoo xam ne bouquet fleur si ñu naqar la ci ñoom. mais loolu ñun du suñu aada. yooyu dañ ko indi rek uniquement. pour non seulement c'est Saint-Valentin. Mhm. mais mu nekk Saint-Warante. Mhm. <laughs> mu nekk Saint. Ah. ndeysaan ah. ndeysaan ndeysaan. Saint-Warante. waaw. waaw yi yaatu na. dëgg la nga xam ne yëpp ay musiba la. ay waaw fa tabaarakallah ñu ngi guddal. Uh-huh. te spécialiste baa ngi ne xaaj waxtaan. non agit sax temps bi. waaw ah, ni moo ñu xaw a njatt onze la ñu war a kii te daanaka ñu ngi ci trente neuf. donc xam naa oustaz tamit dañ koy wax rek na ko mu màmmal tuuti rek. wallaay temps bi moo gàtt waaye kon ñu wax leen lu bari. bu Saint-Valentin ak mbëggeel niñ ko yàqee tey ci jamono ngoog te boo gisee sax ko euh, dañ benn entre parenthèse la rek buñ dugaloon parce que comme dafay laal ndaw ñu ndaw ñu ñoo koy feete hmm. moo tax ñu ne woon ko ci waale rek moo tax bëgguñu euh, tey moom dañuy tëj ligne bi duñ leen euh, gars yi bàyyi ñu rek ba beneen yoon incha allah hmm. ñu soog a dugg si oustaz suba la feetu ah waaw waaw damay ibil sëñ bi xam nga ci mba affaire mbëggeel lañuy wax te tey junj na ko léegi uhuh. wax ne même suñu chanteur yi ñuy am. Mhm. seen way léegi daanaka ñett thème lañu am. Mhm. muy mbëggeel. Mhm. sama yaay ak sëriñ bi. te mbëggeel yi ñu ñuy jox tey. bokkut ak yi ñu amoon démb. xam nga ñi ngi wax bu yàggul wala benn waykat mi ngi wax ne mbëggante leen mbëggee la xew. ma ne ko yow kañ la mbëggeel xew. vraiment <laughs> ba mbëggeel xewee sa maam dafa judd. Ah, déedéet déedéet déedéet di dugg <laughs> xanaa mbëggeel gu bon moo xew. wallaay ndeysaan moo tax tabaarakallah yooyu ah. mat a bàyyi xel la. jërëjëf euh, Oustaz Dame Kairé su ko defee Oustaz Makhtar. suba le 14 février xel yu bari am fu ñu jëm. Hmm. fu ñu jëm mooy feetu wanteeru. suba feet la bu jigéen ñi fa seenee wanteer seen bopp góor ñi. léegi yow loo ci lu ci njàngatu lislaam lan nga ñu ci indil su ko defee suñ mënaatee am Seex Tijaan tamit ci ligne bi rek moom it lu lu gën a jàppandi su maxtaar pare su ko defee ñu dugal Aïssa aussi ak Seex Tijaan ak Ami waaw oustaz euh, bëggoon naa sama bopp tamit ubbeeku yéen ñi daaroon ci baawu école yi ñàkkul mooy lu muy tekki <laughs> Saint Valentin lu muy tekki kooko laaj daal ku nekk lu mu lay wax rek mooy culture jàmbur la rek bu juux si ci réew mi yenent bi dafa am lu mu waxoon sallallahu alayhi wa sallam min xusni islaamil mar mm-hmm. tarkuhu maa laa mm-hmm. bokk na ci li rafetal lislaamus jam mm-hmm. mooy lépp lu ko leerul mu bakko ko kon Saint Valentin gannaaw dëkku fi ko dëpp dégg gannaaw dëkku fi mm. nañ ko dëpp ndax loo xam ne indil nañ la ko te xamoo lumu mm. noo ko jëfandikoo yàq garab yi fi dëkkul. Hmm. bi ñu ko indilee dañ ñoo wax garab yi fi dëkkul lu ci ne. Ah. luñ ci def nuñ koy jëfandikoo. Hmm. pour doonu lor. waaw waaye Saint Valentin mooy lan fu mu jugee ku ko fi indi kuy Saint kuy walante. Hmm. yow pël nga. amoo benn maam moo xam ne ni mos na feetu <laughs> Saint Valentin. yow joolaa nga. saraxule nga maanjaagu nga wolof nga yooyu nga. ci réew bi turka nga neneen. amul sa benn maam moo xam ne nii mos na feetu Saint-Valentin xamul lu mu mm-hmm. tubaab bi rek moo xëy indil nu ko nenu bis boo xam ne daal ci lañuy feetu bëggante ñan la feet gi ñu ko moom ndax jëkkër ak jabar la mm-hmm. ndax ñaar ñu nobante te takkanteeguñu guñ la mm-hmm. ak bu dee jëkkër ak jabar la mën nañoo rafet njortu donte nangu ñu ja ñu tànn leen benn bis comme ni ko ñëpp di waxee mais bu dee ñaar ñi nga xam ne nii sëyeguñ la moom dafa xaram xam nga lu tax yonent bi def ni aalinu nikaaxa wa axful xitbata mhm. bu ngeen dee labat nëbbu leen mhm. bu mu siiw mhm. bu ngeen demee bay takk na ko ñëpp yëg yow nga nobanteeg waa ji ne jënd ngay fleur ak cadeau pour jox ko ko ngir Saint Valentin la takkagu la xaraam na ndax yaa ngi feeñal labat te labat dees koy nëbbu sëñ Moussa Ka mag la ci réew mi dafa am wolofal bu am solo bu mu bind def ni ndaw ñëpp ñëpp mel ni bëy yeeg xar yi hmm. jigéen ju jug suy tukki ànd ak far yi ndaw ñëpp ñëpp mel ni bëy yeeg xar jigéen juy jug suy tukki ànd ak far am na koo xam ne tey Saint-Valentin suba mu ngi ko war a waajale mu ngi ko war a feetu jee par Paris ak faram hmm. far bee dagg ticket jiitu ko mu or koo daggal billet mu fekki ko ñu war a feetu ji seen Saint-Valentin ci lan ci hôtel Saint-Valentin feetu ci hôtel lu ngeen fay def mooy li nga wax léegi kon Saint-Warante. dañuy warante moom waaw. léegi xale bu jigéen bi amul cadeau nopp na faram. Ah. amul lu mu ko jëndal lu ma koy jox. far bi ne ko ah mais man il faut nga euh, joxe preuve bu wane ne nopp nga ma ah. nga ne ko mais man awma lu ma la jox mën laa amee ah, ña booy yow tamit nag bul dof ñàkk loo ma jox. waaw léegi oustaz dafa am euh, ku ñuy wax Seydi Hadji Malick radiyallahu radiyallahu taala anhu dafa ñëw fekk gàmm ci anam boo xam ne nii du anam bu jaadu du anam bu rafet comme tey Saint-Valentin nii mu mel mu indi système boo xam ne nii tey ñëpp rafet lu gàmm yéen nga xam ne tey yéen a ñëw di jotal mission tey nan ngeen yaakaar ne moom lañu mën a teg ba Saint-Valentin bu Saint-Valentin moom daal di koy tegee ne. Maxtaar Sarr am na système bi. acca bismillah mooy dëkku fi nañ ko toxal. loolu rek mooy sama système. ah ak nuñ koy toxalee parce que nee naa la Maodo dafa ñëw indi système. ma ne. Ah. waaw Maodo. ñëw indi système mu gàmm. fekk nuñ ko doon defee. waaw mu soppi ko. Saint-Valentin nag jarul la soppi ndax dëkku fi. am na yeneen yu gën a yell yu fi dëkk pour ñu war ko soppi jagal ko. mais ndaw mais mais xam nga lu nu sonal. Ah, ah. mooy lu tubaab bi indi ñu layal ko lu tubaab bi indi ñu jël am na yoo xam dañ ko war a dëpp ne dëkku fi. dëgg la mais comme mais oustaz comme fu mu ne nii tënne tënne moom. ñëpp koy def média yi fi mu ne nii ku ci nekk yaa ngi ko utal programme bu il faut que aussi ñu am lu ko contrecarré. li ko contrecarré mooy thème bii ngay def. waaw wan leen ne njaaloo dafa xaram. Mhm. leen ne jigéen warul a fekki góor. Mhm. sëñ Moussa Ka xoolal dafa wax ni. jamono jii mooy jamono yaataa yumbe mm-hmm. góor ñaa ngi taaxuraan jigéen ñaa ngi gumbe mm-hmm. ngir xarnu yii wëy góor daa fekk jigéen mm-hmm. bii xarnu nag jigéen ay waaj fekk ji leen ay sa kooku yow moo koy layal moo fi toogal jigéen ñi. lu am solo waaye it tamit ñëw moom it it laayee de. xoolal mu ne naa jox ay sa. góor dootu dem. far dootu dem yekkitaani. fukki jigéen ñëw. ku nekkay waani ku nekk sol robbam tanaa la jël ma soo ma jëlut kat du ma sëy waa jël ma te wuñ dara lu dul mooy yàlla ak ay dërëm te duñ ci def sax yil la ku nekk fexe nga dajale sa juróomi far suba ci quatorze bi ci Saint-Valentin Saint-Valentin bi ku nekk nga ne ah suba moom sama bis nar naa neex moor su ma joxee kado alaaji jox ma kado paate jox ma kado waa ñoom ñëpp jox nañ la kado yow looy joxe li nga am góor li muy joxe mën na ko wutiwaat mais yow li nga am boo ko joxee ñàkk ko. benn bal nga tiire tuy. jeex na waaw ok Aïcha daam ñëpp song nañ leen. yow léegi nag looy tontu. waaw loolu foofu ah. nag moom euh, Maxtaar dinaa dinaa taxaw foofu tuuti parce que euh, yow euh, jigéen yàgg na ñuy gis muy am ay prétendants yu bëri loolu kenn weddiwu ko xëj na dem fekk ji bi loolu mooy problème bi. waaye mu toog ñu fekk ji ko wàññiwul dara ñu ñu fekk si ko loolu wàññiwul dara <laughs> oustaz. loolu laa bëgg <laughs> waaw. bu dee am na ku la nopp. waaw feetu gi mooy na ñëw ci sa yaay ne ko loolu mooy comme solution bi. Ah. sa doom ji kat nopp naa ko. gannaaw dañuy feetu nobel ma bëgg a fësal tey ne nopp naa sa doom ji. pour ngeen may ma ko sëy <laughs> kese <laughs> ah, matal xanaa du ñu ku ñëw rek ñu ne la da ngay ñëw rek ne dama bëgg nga may ma sa doom ji nopp naa ko rek ñu may la ko xanaa ku ndaw si tamit léegi nag kay xanaa am na léegi yow weer nga sa bopp ndax danañ la weeram déet dama ne la ñëwal nga wax ne nopp naa sa doom ji léegi nag mu des yaay jeeg baay ji ñoom xool nañ la ndax doy nga leen wala déet mais fi ñuy feetoo ji Saint-Valentin bàyyi du ko fekkee yaay du ko fekkee boîte de nuit la ñuy jëm plateau télé yi plateau rajo yi nit ñi su gàmmu euh, Tiwaawan jotee am na télé yoo xam ne ci Sénégal duñ ci bokk lendemain lendemain euh, euh, tamxarit muxte fii na daje bu rëy ba ñu am Tiwaawan dana am ba jàll ñu bari duñ ko yëg lu mat ay junniy ndaw dajaloo ñu tël ni muxtafiina bi asaral abay wal ajdaat indi tam ñu am solo yu mën a yeete kenn du ko yëg Saint-Valentin bu ñàkk fayda bu bon bu dëkk Europe indi fi télé yëpp ne force ñu indi ko programme léegi nag mooy responsabilité yi ñu wax sànq rek société bi xam nga sànq dañu teg euh, way wu am solo mu mu interpellé mag ñi interpellé yaay yeeg pap ak baay yi euh, muy euh, yaay uh-huh. ak baay yëpp ñoom la interpellé foofu uh-huh. mais yaay yeeg baay yi ñoom dañoo génn kër yi xam nga uh-huh. toggatuñu sax ban soxna ay ñu may ki ci ligne bi après ñu dellu soit ci kii waaw Cheikh Tidiane yaakaar naa la war a doon su ko defee Oustaz Cheikh waaw salaamaaleykum waaleykum salaam waaw koy Diouf waaw euh, fi ngeen toll foofu ci xew-xew boobu muy Saint-Valentin. Uh-huh. Euh, li nga xamante ne nag moo ci mel ci diine wax. Uh-huh. mooy xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mbokk moom wax ko léegi. Uh-huh. nañuy nëbb. ngorowoo. tey siiwal tey nañuy nëbb ak ngorowoo. tey siiwal euh, ak ak ak. sëy ak ak ak takk. takk gi waaw. day siiwal mhm. waaw. bu ko defee. Euh, foofu rek xadis boobu moo àtte li xew. dëgg la. Mm. li ci nekk nag mooy. Mm. Euh, jullit warul tëggal. dëgg la mais Oustaz. Oustaz. Euh, li ma wax Oustaz da kii nu mu tuddati Maxtaar laa lay wax de. parce que boo xoolee sëñ Babacar. ñëw na initier lu mel ni daaira teg ko muy centre bu ñuy yaree ndaw ñi mu nekk centre bu ñuy yaree ndaw waaw Seydi Hadji Malick dégg nga joxe naa la léegi exemple ci gàmmu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne sax bi mu ñëwee am na fu mu jaar ba xaree ko ak loolu waaw te yéen tamit yéen dañuy déglu ngeen nekk ci njaboot ci kër gi war a orienté waat ndaw ñi yéen ban plan ngeen di teg boo xam ne ni dina mën contrecarrer la parce que xam nga li kii wax muxta fi ne di daje te du fësee comme nii mu fësee nii te lii ñëw rek bàyyi ko feneen ñëw fës yéen nit war est-ce am ngeen benn système bu ngeen ko war mën contrecarrer bu dee rek dafa araam waaw ñun liñ ci am comme taxawaay mooy li ko yonent bi waxee sallallahu alayhi wa sallam ko jënd ci loxoom wala mu jënd ko ci làmb bi loolu dafa am niveau. Mhm. lo bu dee ci loxo bi état bi la. moo mhm. waroon wax ne lii kat euh, euh, bokk ci euh, aada réew mi. Mhm. mu tere ko. dëgg la. donc moom taxawul li mu waroon taxawee. ñun ñi nga xamante ne nag suñu làmmiñ la ñu yor. kenn ku nekk fa lay waxee. waxal ak ña ngay waxal. comme ñun dawaay yi nga xam ne ci la ñu nekk di ci di ndaw yi waaw. ñu yee leen ci façon boobu ñu ñu bokk ci ñu koy def. dëgg la yéen ñooñu ci rajo yi ngeen wax ko ci ngeen di waxee nii. bi ci des nag su fekkee ne mënuñu loolu. ñu bañ ñu neex ñu bokk ci ñi koy bañ. dëgg la. waaw man daal euh, loolu moom laa ci gis comme taxawaay. jërëjëf oustaz euh, waxtu yi moo xaw a cate euh, daanaka boo xoolee neuf minutes rek moo des waaye ci ci deux minutes rek allo. waaw oustaz rëcc na mm. kon baax na. Euh, soxna Aïcha yow. waaw li Maxtaar ci Maxtaar laay ñëwaat lu mu wax ne nañ ko dindi. Ah. carrément man daal nañ ko remplacer. luñ koy remplacer lan. mën nañ ko remplacer xam nga orientation am na mais fañ leen orienté moo dul foofu ñoom li ci ëpp ñii ñuy wax ci affaire yu nobante ñi ci ëpp booy seet euh, duñu ay jëkkër ak jabar kenn takku ci kenn. xam nga xam nga remplacer léegi nag. xam nga remplacer nga war xam ne moo war moo war a wax balaa mu doon egg ci média yi muy ci kër ga. Saint-Valentin kañ la siiw waaw pas moo tax balaa mu doon egg foofu la ñi nga xam ne ñoo ne ci kër yi. mag xam nga média ko siiwal xam nga léegi léegi daam lii mu def. Hmm. bu ko ñëpp nekk ci média def am ñu yeewu ne am mbir mi kat waa bay Albayaan FM keroog nee nañ Saint-Valentin moomuñ ko bokkuñ ci. Hmm. oustaz wax nañ ne nobante kenn waru ko siiwal ñaar ñu sa yëgut ñun ñaar ñii say tamit ci biir kër gi mënoo dëkkee yàpp sa jëkkër. <laughs> mënoo dëkkee toroxal sa jabar mhm. ci année bi fukki weer ak benn ba fukki weereel benn ñaar benn bis nga ne ko tey danaa ci seral sa xol moom laa doon wax sànq ma ne amul sens merci bi nga ko waxee yow muy jigéen <laughs> waaw léegi nag lu amul sens nag jarul la nekk naan dañ koy jagal ak ñàkk jagal xëpp sànni mbalit moom amul sens sànni waa xam nga ndaw saint mbalit la mu dindi xam nga xale bu bu yoree dara nga dindi ko sànni ko lii baaxul dindi ko sànni xam nga day jooy waaye boo ko dindee sànni tegal leneen ci loxo ba nga xam ne day fàttali nga dindi. yombal sa yi ñi nobante takkante. yombal sa yi ak xale yu jigéen yi takk seen sër ba mu dëgër bàyyi joxe seen bopp. moom ba tey yaa ngi may rejoindre xale yu góor yi takk seen tubéy ba mu dëgër am jom sa takki. maa la wax lii waaw. waxkat bi bi mu ne yàllaa dogal ci xarnu bi jigéen ju bon ji ay kasara ji junne yi ak jigéen ñi dootuñu dara. Mm. mais mais jigéen ñi bañ. nga ñuy wax ni ci ñoom ñi nga xam ne ñoom lañuy faral di gën a kii jaay fonde amul pertement de <laughs> comme jigéen ñi dañuy joxe góor ñi joxe ñoom jàpp na ne amul pertement mais kan mooy perte bañ a am pertement. jaay hmm? fond dañuy wax rek am na pertement di. ah moom nee na amul pertement. ah ñoom ñoo leen di dégg pertement. Ah, boo ah. defee junne kay xëy rek ndékki ci dem lambule kay. Ah. perte nga tuuri ko. waaw bañ a am pertement. waaw oustaz daam kon oustaz daam firil ñu wax ji nañu nañu daam firil wax ji est-ce que jaay fonde noonu rek ki naa yatan waaw dégg nga ci lu gàtt rek oustaz kon waxtu bi parce que xam naa li ñu bëggoon a développé yëpp duñ ko mën développé. waaye damay ñëw ci sa question bu njëkk. te mooy lan lañ fiy teg. très bien xam nga seexal Alxaaji Maalik bi mu fi ñëwee fekk fi gàmmo hmm. gàmmo ci réew mi la nekkoon hmm. ay ceddo doon ko def hmm. jëggaani wuñ ko lii nag Occident la jóge boo dee seet baat bi euh, turu làbbe la Saint-Valentin làbbe la boo xam ni moom daf ne woon comme ñoom ci seen yoon duñ ca am duñ ca nobeel ak duñ ca bëgganteeg yu mel noona mhm. bu mujj mu del ci ginnaaw mhm. am ku mu doon bëgg mhm. kooku mujj ñu mettital ko ba rey ko mu koy mettitlu moom itamit bés boobu mu ko doon mettitlu moom it daanaka ba xaw càllooru ñu ne kon nañ tuddee bés bii bésuñu bëggante parce que kii bëggee la tax mu loru. Mhm. seetal loolu ah. <laughs> xam nga loolu lu mat bàyyi xel. lu mat bàyyi xel ak te xam nga un musulman warul mel ni comme un jimbo. déedéet. <laughs> bu maa fi ñëwee mu bokk. bu su bokkaa ñëwee mu bokk. Mhm. bu domadaa ñëwee mu bokk. Mhm. bu yaa fi ñëwee mu bokk. un musulman warul mel noonu. ñun dafa am lu ñu xam ne mooy suñ principe. xam nga diine principe la ak ay méthodes. principe yi du changer. Mhm. méthode yi nag mën na changer. Mhm. mais méthode Saint-Valentin bi mhm. li oustaz wax rek la. benn xëpp ko mu dellu ci àll ba. bi ci des mooy conscientiser jeunes yi. ne leen lii du suñu moomeel. dëgg la du suñu alal. Mm-hmm. te ndaw dafay fonk boppam. Mm-hmm. nday dafa ndaw dafay téye avenir am. Mm-hmm. te avenir góor ak jigéen. li ci ëpp solo mooy sexe. sexe waaw kay. saas ko da teg foofu sa loxo damay sàkkuwaat nag bii sax ngeen dellu siwaat pour ñu conclure lii dinañ leen ko ñaanaat pour ñu conclure su ko defee dañuy def rek tour de table bàyyi oustaz euh, Makhtar tàggatoo moom it it euh, jox oustaz Dame Kéré jox Aïcha ñu kii parce que dañ ko war a àggale. d'accord li may wax daal mooy tele uh-huh. yi buñ ñu yeb moom laay moom laay tëjee <laughs> tey yëpp nu weesuwut uh. di jagleel bis nobante uh-huh. ay Saint Valentin di ko jël di ci invité ay nit uh-huh. lu lay wan lu bon la ak mooy la mooy xoolal rek bu Saint-Valentin jotee ñan la ñuy e-, or ñu ñëw ndax nañu woo benn wusaat ni ko waxtaanal ñu ci mahabba déedéet te il faut ñu différencier diggante al ak mm-hmm. ndeysaan ak al shafaqatu al shafaqa uh-huh. ak al shahwatu uh-huh. gaa yi li ñuy feetu waaw gaa yi li ñuy feetu <laughs> shahwa la uh-huh. mooy nobel la ñuy feetu comme ni nga ko waxee shahwa la shahwa nag mbëggeel la guy nekk ci bakkan comme comme ni ko borom nushatul majalis su muntaxib na fayis waxee ndeysaan mbëggeel la guy nekk ci jabal mooy ñaar ñi bëggante daal wéet rek ànd mooy tax seen xol mën a sedd safaqa nag mhm. diggante yaay ak doom mhm. diggante euh, doom ak euh, baay mhm. foofu lay dugg mahabba ma mën na généraliser ci yàlla ak yonent bi ak nit nàngam donte sax moom nee na ci yàlla rek la jëm ak ci yonent bi mais li may tëjee mooy maam Cheikhul Xaaj Malik dafa am wax am solo ju mu waxoon daf ni wéetaayu góor jigéen de ñaara ci xaw a doy xelum alaaj dal xelum alaaji Malik soxna Aysa sa maam si Xaaj Maalik mu ne léetaayu góor ak jigéen ñaara ci xaw a dal xelum <laughs> alaaji Maalik yéen ñii feetu Saint Valentin nekk taalibe alaaji Maalik déglu leen ndax Saint Valentin ngeen gën a gëm wala alaaji Maalik ngeen gën a gëm ñu ne ko si ban ak ban mu ne góor gu jong léegi ak jigéen ju wasin léegi ah waaw <laughs> ay Maodo waay góor gu jong léegi ak jigéen ju wasin léegi bu nu wéetee jàmm rek waaye xale bu góor bu entraîné ba toll ni ñëpp lekk yàpp naan meew naan kafe xale bu jigéen bu tooji weenam paccal mm. ñu wéet ne dañuy feetu say balante mooy rek mm-hmm. jërë jërëjëf oustaz kon ñu jox oustaz Dame Kairé moom it it euh, kàddu minutes yu néew wala ay secondes sax kay waaw foofu rek la mm-hmm. te mu ñu conscientiser ndaw ñi mm-hmm. wan na leen ne fii ñu leen di jaarloo yoon wii ñu leen di teg duwul yoon wu baax ëllëg war nañ nekk ay pàppa mhm. ëllëg war nañ nekk ay yaay. Mhm. war nañ nekk ay responsable. Mhm. te jamono bi ñuy nekkee ndaw ci lañ koy liggéey. bu ñu yàqee seen ndaw nag yàq seen jamono. kon ndaw. lu am solo la. ndaw lu rëy la. bu ko defee yëpp ay tentative la. yoo xam ne dafay jóge ci oxida ndeysaan sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu. dafa doon wax ne jamono dina toll foo xam ni. na ngeen amee jikkoy sal guuf. sal guuf mm-hmm. ñu ne ko luy loolu mu ne sal guuf ñax mu nekk ci àll bi mm-hmm. vague bu ñëw jóge Occident mm-hmm. vague bu ñëw jóge feneen ngir daaneel ko moom day sëgg rek bu ngelaw loolu jàllee mu taxawaat dellu ci na mu nekkoon kon benn bés la bés bi warul tax ñu kase si yàq si suñu àdduna te nit góor ak jigéen valeur mm, lu mu waru ko fowee bu njëkk jigéen ñi fi nekkoon uh-huh. dañu am jom uh-huh. da gis jigéen joo xam ne dafay téye boppam uh-huh. ba bés jot sëy am yaay ak papa tiit ndax seen doom ji fowee na boppam wala fowewul boppam jigéen jooju ñu war ko jébbal borom këram mais comme dañu amoon jom jigéen ji dafay dalal xelu ay parents ne ko yaay jiin ma mm-hmm. baay jiin ma mm-hmm. épreuve bii may def tey bu ma ko naree daw dee ndax nooy ndax ñoo bokk jom dëgg xam nga yooyu mm-hmm. yu mat a bàyyi xel la bu defee kon faw ñu dellu si waat culture yooyu dellu si aada yooyu dellu si jom yooyu ak valeur yooyu mooy yi ñu jund woon rek ci tabaarakallaahu la teranga sénégalaise ba defee tabaarakallaahu ñu ngi leen di gërëm di gërëm oustaz Mokhtar di gërëm ñi ñu fi bokkaloon toogal lépp yëpp soxna Aïcha oustaz gërëm mbokk yi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñoo nekk ci technicien bi fa tabaarakallaahu di gërëm waa rajo bi yëpp lii ci yi nga xam ne dafay xeex yooyu ñu doon tudd la tabaarakallaahu di nuyu suñu ay soppe yoo xam ne ñu may ñu rek tabaarakallaahu ah, euh, di suñu ay xarit soxna Adja Diawa tabaarakallaahu mhm. ah, nga xam ko xam taxawaayam fa tabaarakallaahu mais xaw naa ko mere nag xaw naa ko mere ah. parce que <laughs> gisuma ko de gisuma ko woowuma dégguma ko ci dara di ko gis insha ah. allah <laughs> Oustaz Mansour Dieng Oustaz Mansour Niang mhm. ak mbokki ñetti mbaar yëpp fa tabaarakallaahu dañuy bañ a dugg si lim mhm. ndax bu ñu limee du ñu matal ndax waxtu wi jot na ba pare fa tabaarakallaahu di nuyu soxna Ndeyaasin Diop di nuyu tabaarakallaahu soxna Sakho di nuyu Nogay Seck di nuyu ñëpp rek ak suñu yaay ju baax ja fa tabaarakallaahu soxna Ndey Sall ak maam Jee ak maam soxna fa tabaarakallaahu yàlla yàlla bàyyi leen fi ñu dund di ñaanal suñu way jur wa fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di jéggalu di jéggalu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf euh, oustaz euh, Dame Kayre jërëjëf oustaz Makhtar Sarr su ko defee ñu bàyyi as as Aïssa temps bi moom waaw def naa li ma euh, su ma déggee rek liñ fi jot indi yëpp rek mooy ndaw ndaw li nga xam ne moo war a tabax Euh, war na am xel mm-hmm. mu rafet mm-hmm. war na wér waaye itam war na am kàttan mm-hmm. euh, te itam war na di jege mat mag waaye mag man mag mu mat moo war a mën a orienté ndaw loolu mm-hmm. kon tabaarkalaaw maa ngi jaajëfal ustaas yi bu baax di leen ñaanal yàlla mm-hmm. yàlla gën a yaatal seeni dënn yàggal seen taxawaay mm-hmm. ak yooyu tamit da waaye nga may ma rek tuuti rek ci ma eh, sargal waaye itam ma ñaanal ki nga xam ne mooy eh, suñ Fallou Cissé contribuer lu bari ci suñu formation ñu koy ñaanal yàlla duñ ko gërëm dañ koy ñaanal yàlla mu gën a yàggal taxawaayam may ko wér moom i tamit te lépp lu nga xam ne rek mbébét na ko ci eh, jeunes yi def naa loolu rek mooy yitteem yàlla jàppale ko ba mu àggali ko si jàmm fekkee lépp yàlla bu kenn séddale eh, dara gannaaw eh, ñu ngi jaajëfal képp ku ñu doon déglu di jaajëfal rek seen technicien bi waaw di ko ñaanal yàlla moom tam yàlla gën ko wéral eh, di ziar tam suñu yaay foofu ci rue 18 angle 37 Médina suñu yaay ay tëndooy kon asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokki Albayan FM 90 point 5 ci Dakar 103 ci Tivaouane bi Ablaye Mar fii ci Dakar waaye Tamba ca Tiwaawoon su ko defee thème bi ñu indi woon tey rek di euh, ndaw moo war a tabax réew dégg ngeen di ci asatise yi wax moo xam ni ci buum gi Cheikh Tidiane Diouf ak Ami Seck waaye Oustaz Dame Kayre Oustaz Makhtar ak soxna Aïssa mi nga xam ne moom a doon jàppale donc kon suñ ko doon tënk rek dañuy wax ne ndaw war na nekk kuy déglu déglu waaye déglu yàlla ak yeneen taam moo ci jiitu war na nekk ku topp ndigalu yàlla ak yeneen waaye war Ah, jël làmb wala fo def ko muy facteur de développement ndax matu ko waaye gis nga it dàq ndawit war na wattandiku di ab culture boo xam ne baaxul ci moom rawatina comme ni ñuy war a feetee suba dégg ngeen ndigal yi nga xam ne moom la ci ustaas yi joxe kon dañ leen di jox dig daje rek ba àllarba bii di ñëw incha allahu rabbi de 9h à 11h bu ko defee waa Zadul Mutaalim ma jox leen dox daje ñoom it dimanche 21h ba 22h fii ci Albayaan kon mbokk yi ba àllarba bii di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. yaa lahu min